بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaar ñoo ngi fii ci Mbàkke Xewar ëttub Maam Mor Jaara fas yéene waajal bis bi nga xam ne moom lañ ko baaxoo defal muy màggal ak Mbàkke Xewar gi nga xam ne ñu ngi ko daa amal fukki fan ak juróom saa yu ne ci weeru korite kon muy bis ni tey bu delsee muy altine ji ñu dëgmal ñuy tàmbalee jataay bi ci ñaanal ki nga xam ne mooy fi nekkal seexul xadim muy seex Mouhamadou Mountakha suñ boroom di taxawaayam yokk kàttanam yokk xelam ba mbooleem yéene ki mébét yi nga xam ne amal na ko maamam mu mottali ko ci sagoom bu noppeet di ñaanalaat sunu xalifa bii nga xam ne mooy sëriñ Abdoulahi Mbacke mi fi xalifa Mamour Diarra borom saam suñ borom dolli ko kattan li ko dëgëral ba mboolem naa lim am ci kër maamam gi lépp suñ borom kattanal ko mu motale ko jàmm naka noonu it di ñaanal Cheikh Serigne Abdoulaye yàlla bor mi nga xam ne moom lañ ko àndaloon daaw suñ borom dolli ko njëggal ak leer ak de ca fa nga xam ne fa la nekk di barsaq bu ko defee kon ñu fas yéenee dugg nag. ci lenn ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy waajalee lii di màggal Mbàkke Xewar gi nga xam ne moom la ñu waajal bu tey del seeg jàmm incha allahu rabbi fii ci Mbàkke Xewar kër Serigne Mouhamadou Mourtala Bousso ñu fas yéene def benn plateau ànd koog Télé Lam Fall fas yéene cee ànd ak Serigne Abdoul Karim Mokhtar ak sëriñ Abdoul Khadir bu Serigne Jili Gànnaar ak Serigne Baye Dambay ak it Serigne Makhtar Galle ak Serigne Ndiogu ñu fas yéene ànd ak ñoom fas yéene waxtaan fii benn thème boo xam ne ci waajtaayu màggal gi lay doon muy thème bu mën a am solo solos xam-xam fi nga xam ne kat gis nañ ne xam-xam moom la ko doomu aadama soxlawoo ci dundam bu ko defee danañ dañ ciy bañ a yaatal waaye dañuy bàyyi ba ñu ko war a wax bu ñu àggee ca leeral dañ ca war a leeral loolu la moom lañ fas yéene def thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak yéen ñuy fàttali ne màggalu ren gi muy 2022 bi mooy tombeek téeméereelu at ci demub Mamor Diarra muy centenaire kon loolu sax mooy kii màggal gi ci centenaire boobu kon loolu tax ñu ne faw danañ ci gën a yaatal yeneen doxalin yoo xam ne danañ ko gis ñu leen indil ci màggal ak ren gi incha allah rabbi kon loolu lii nii ab cof la ci ak ab jukki ci programme centenaire bi dëgg la sax année bi ñu génn muy de 2021 moo tombee woon ak centenaire bi waaye nag Covid bi nga xam ne ci lañ nekkoon. ba taxoon activité yu bari ñu takkaloon ko kon nag moo tax ñu ne gannaaw ren lañ màggal kon nañ ko dundal ci màggal googu bu ko defee kon dañuy jox sëñ Abdul Karim mu daal di nuyoo mën a présenté wu bisimilah sëñ sëriñ bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu lu bëree bari ci bis bi nga xam ne ñu ngi koy waajal muy bisu Maam Mor Jaara borom sàmm ñuy siyaare ñëpp di ñaan suñu boroom yàlla yóbbu ñu fa ak jàmm te tal ko te lépp luñ ci yéene rek ci lu baax yàlla àggaleel ñu ko nag maa ngi bàyyi kàddu yi rek mu jàll ci bokk yi. Hmm. jërëjëf sëriñ Abdul Karim ci nuyoo bu am solo beeg dugg bi bu ko defee kon ñu jox sëriñ Abdul Xaadir Gànnaar moom it mu def nuyoom bisimilah sëriñ Abdul Xaadir. bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñuy teeru ak di ñuy seetaan ñu ngi nuyu ñëpp ci nuyoob lislaam bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di am mbégte bu baax a baax ci ànd ak yéen ci jataay bu am solo bii nga xam ne ñu ngi koy waajalee bisub borom champ bi ci suñu kanam di ndokkeel ñëpp ci xew-xew yi jàll yépp di jiital ci nuyoo bi ak bi ak ndokkeel gi kilifa ak yoon wi di sëriñ Muntaxa di ñaan sunu boroom doole guddal aw fanam lool te sàmmal ñu ko yokk ak wéram ba yi mu naalal euh, sëriñ bu mag yëpp mën koo àggale ci sagoom lépp ñu ànd kook moom noonu lañ koy ñaanale itam sunu bàyyi sunu kilifa di sëriñ Abdoulahi Mbacke xalifa borom Cham ñu ngi ñaan sunu borom guddal aw fanam lool sàmmal ñu ko yokk ak wéram bu baax ba naar yi mu naanal borom saam yépp mu àggale ko ci kanamu njaboot gi di ñaanal itam euh, sëñ Abdoulahi yàlla buur mi ñu àndaloon daaw màggal gi sunu borom dolli yërmande ci kawam te sàmm ak njabootam kon ñu euh, teewlaat ba kàddu gi ñëw insha allahu taala jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir ci dugg am solo gi kon bu ko defee dañuy njëkkanteeg waxtu bi rek daal di jox sëriñ Abdul Karim mu ubbi bu ko defee nag point bi mu war a njëkk a tàmbalee mooy ki ñu war a waxtaanee kat nga xam ne moo ñu dajale fii muy Mamour Diarra Borom Sam moom mooy kan fan la ganee àdduna fan la bokk incha allahu bi mu leeral ñu loolu ñu xamle Borom Sam ba noppi lu war a jàll nag ci tam bi nga xam ne kon moom la ñu war a dugg direct bisimilah sëriñ bi. jërëjëf sëriñ Seexuna ñu ngi am mbégte lool nag ci jataay bi. di ñaan suñ borom rek mu àggale lañu ko mel niñ ko bëggee ndax kilifa gu baax gu mel ni borom saam fu ñu koy waxtaanee rek ah, xol yëpp dana fa séenee taataan fa séenee cee jëlee ay xam-xam yoo xam ne rek ah, yu ñuy roye lay doon ndax kilifa yu baax yu màgg yu màgg yi kuy kuy waxtaan ci ñoom ku ne. Mhm. seen waxtaan dafay mat a diglu ndax boo digloo ba noppi rek danga ciy war a roye ndax ñoom seen lépp. ak mbaax la ak rafet jikko loolu lañ leen xamee niñ fi nekkee ba niñ fi jógee mm-hmm. njaboot gi fi bàyyi loolu rek lañ xam kon nag yàlla nañu yàlla defal ak dégg ci waxtaan wi euh, fii nag di bërëb bu mat a bàyyi xel muy Mbàkke mm-hmm. ndax fi la borom sàmm feeñe mm-hmm. fi la Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul feeñe kon dëkk bu màgg la jëmm ji nga xam ne moom la ñuy fas yéene waxtaane tey ah, te muy ku mat a waxtaanee dañuy day aaji ñu xam fi mu bokk ndax xam fi mu bokk dafay lu am solo ndax moom dafa nekk koo xam ne ñaari waajur yi ko séq ñoom ñëpp yàlla dafa defoon ci ñoom ak mbaax defoon ci ñoom ak sell ba loolu mooy rogalaat di di di di wëy di woy ba ci askan wi ñëpp kon nag ah Maam Mor Saam bu ñuy waxtaan ci moom faw ñu wax fi mu bokk ci waaj waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen ndax dana tax ñu xam lépp ah, ñoom ñaar nag dañuy ñu ñu ñu ñu ñu baaxoon ñoo xam ni ki nga xam ni mooy waajuram bu góor mooy Maam Mor Anta Sali Mbàkke Mamor Anta Sali Mbàkke nekkoon jëmm joo xam ne ku baax la woon koo xam ne bari woon xam-xam lool teddoon lool réew mi ñëpp xam ko kooku mooy waajuru Mamor Jaara boroom Saam ak ñi nga xam ne ñoom la séqal ñoom ñoom la bokk ñëpp ñoom laa indi fii Mamor Anta Sali moo moo nekk nii ñii ñooy nekkoon ay doomam yu góor ñoo nekk ñoo nekk nii sëñ Mbàkke Anta sëñ Mbàkke Anta mooy waajuram moo maanaam mooy moo ci mag moo ci mag suñ Mbàkke Anta maam borom saam mi ngi nii ak maam borom Touba Xaadim Rasul ak maam Thierno Birahim Faati ak sëriñ maam maam maam Cheikh Anta Mbàkke ak sëriñ Modou Faati Mbàkke ak sëriñ Balla Coro ak sëriñ Cheikh Coro ak sëriñ Cheikh sa Mbàkke ak sëriñ Afia Mbàkke ak sëriñ Massamba Mbàkke ak sëriñ Abdullahi Mbàkke ñii ñooy njabootu Maam Mor Anta Sali ci góor maam Mor Anta Sali maam Balla Aysa mooy waajuram maam Balla Aysa maam Maharam. Mhm. waaw noonu la demee. léegi kon ñii ñëpp nag nekk mbokki maam Mor Jaara Borom Saam ndax ñoo bokk maam Mor Anta Sali nekkoon nag ñu baax ñoo xam ne ku ci nekk rek jaxasoo woon nag maam Mor jaxasoo gu wér boo xam ne rek umpante woon ci dara mbokk gi ñu ko dox di ko rafetal xam liñ bokk xam ni ñoo bokk maam Mor Anta Sali ñëpp ku ci nekk rek mënees naa waxtaan ci moom ba suba te du jeex. nii Maam Mor Anta Sali amee woon njaboot gu jigéen euh, njaboot gu góor ni la amee njaboot gu jigéen gi moo nekk nii moom it mooy waajuru soxna Roqee Mbàkke ak soxna Faati Anta Mbàkke ak soxna Anta Sali Mbàkke ak soxna Xari Mbàkke ak soxna Kumba Tayba Mbàkke ak soxna Faati Jaara Mbàkke ak soxna Aminta Faati Isa Mbàkke ak soxna Faati Bintu Mbàkke Isa ak soxna Astu Mbàkke ñii doomi Maam Mor Anta Sali lañ ñoom nekkoon bokki kilifa gu baax gii moom it ñoom ñëpp nekkoon ñoo xam ne rek benn lañ woon bëggante soppante jàppante kon loolu mooy law rek ba tey léegi nag maam Mor Jaara borom saam e, maam Jaara bu Poroxaan mooy waajuram kon wax naa leen maam Mor Anta mooy waajuram maam Mor maam Jaara Buso Poroxaan nag mooy ki nga xam ne moo nekkoon waajuram maam Mor Jaara maam Jaara Buso Poroxaan soxna Asta Waalo Mbàkke mooy waajuram bu jigéen waaw soxna Asta Walo Mbàkke sëñ ma Bousso Awa Mbaay di waajuram bu góor mhm. maam jaara Bousso Poroxaan mii nag njabootam ñoo nekk nii moom laa leen indil nii gis ngeen ko nii kii mooy maam Mor Jaara borom saam moom la taawloo foofu ci maam teg ci waaw ak ak Seex Ahmed Bamba Xaadim Rasul ak soxna Faati Mbàkke ak maam Abibullahi Mbàkke ñi nga xam ne ñoom la maam jaara Bousso am ci kër maam Mor Anta yal na yàlla yokk seeni leer bu baax a baax kon nii la néeg bi tëddee nii lañ nii lañ bokkee kon nii Mamor Dia jaar Diarra Borom eh, ñii la bokkal eh, ñaari waajur yëpp ñee la bokkal Mamor Anta Sali mm-hmm. waaye mbokk gi moom lépp daf ko doon dox du ko doon dox noonu mu ko doon doxee nag noonu la ko bokk yëpp war di ko doxee rek Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi noonu la fonke woon bokk yépp kon bokk nañ nañ nañ xam ne mbokk dafa am solo nañ ko dundal di ko dox loo xam ne nag kilifa yu baax yi bi ñu fi nekkee dañ koo bëggoon fonk ko yemalewuñ ko nag dara kon njaboot gi mu fi bàyyi nañ ko gën di dox mm-hmm. sëñ Touba Xaadim Rasul dafa wax ne gannaawu baaxul sëñ Bay Jaxate dafa wax ne gannaawu baaxul ku koy def sën jullit rafetul yow loo deful woon ba Bambay teewee tey bu ko def loo xam ne nag sëriñ tubaa bëggu ko woon ah bu mu wane bu waree gannaaw nii rek waree su waree su ko waree su ko def te moom woyefal ak bokk bëggu ko woon dafa bëggoon bokk ñii ñii ma leen ñimal ñëpp dañoo dañoo dañoo jàppante woon bëggante woon nekk benn kon nag nag famille bi ñëpp jaboot gépp rek joxante loxo bokk nekk benn loolu mooy neex ñii nga xam ne ñoo tëdd fee ca euh, këru dëgg ga kon nag bokk yi boo gisee li tax ma indi lii rek dama bëgg rek ñu xam ne ah lu baax moom fa mu nekkoon rek la nekk borom saam buñ la waxee ne la maam jaara mii mooy waajuram maam Mor Anta Sali mooy waajuram da nga xam ni soqikoo na foo xam ne ak mbaax rek la ak mbaax nag mooy rafet jikko rek la yonent bi wax al al al birru xusnul xuluqi baax moom mooy rafet jikko rek te ñoom ñii nag ku ci nekk rek danga ngaa feesoon dell ak jikko yu rafet baax bëgg say bokk sonn ci lu baax di jaamu yàlla guddi ak bëccëg waaw fonk ñëpp tabe di yërëm doomu aadama yi loolu la moo nekkoon seen jikko kon nag euh, bokk yi boo gisee tax ma indi lii rek damaa bëgg ñu xam ne rek àddina moom lépp dañ ko aj ci ay nettali la ndax jëmm yi ma tudd fii yëpp nekkatuñ fi jëmm yi ma tudd fii yëpp yàlla na yàlla yokk seen leer nekkatuñ fi waaye nag mel na ni ñu ngi fi ba tey ndax seen njaboot gaa ngi fi njaboot gi ñu ngi fi kon njaboot gi nañ fas yéenee dox rek ci la nga xam ne ñoom lañ doon dox ñoom démb te duñ jaaxle mukk duñ am benn jafe-jafe waaye nag hmm. buñ bëggee weesu la nga xam ne ñoom ñoom lañ doon dund moom lañ bëggoon ñu bëgg ko fay weesu bëgg di yor beneen dund tàggali ko ŋaayoo ñàkk doxuk bokk yooyu day dem ba dugal ñu ci lëndëm ngoo xam ne rek maar day kon nag ñii buñ leen dee waxtaani rek dañoo bëgg rek ñu sofu ci ñoom bañ a tàggalikoo ci seen gis-gis seen amoon rek kon daal xam naa ne damay ñëwaat ci gën a dëgëralaat mbokk gi rek maa ngi leen di bàyyi kon ba ci kanam tuuti jërëjëf sëriñ Abdul Karim ci dugg bu am solo bi nga xam ne def nga ko xamal ni borom saamkat fan la bokk ak it waajur yu am solo yi nga xam ne suñu borom tànnal na ko te it waajur nekk lu am solo wala ak mbokk bokk ci doomu aadama comme ni ko bu sayri waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xam si ba naan ko lam tazal fii dama idil kaw ni tuxtaaru lakal ummahaatu wal abaa yow de suñ borom mësta dañ di la tànnal ay waajur ci ay ndey ki baay la tàmbalee ci aadama ba ba ngay agsi kon it borom saamit néeg boobu law ba agsi ci moom nga leeralaale mboolem ay mbokkam moo xam ci wàllu waajur wu góor wala waajur wu jigéen kon loolu muy doon loo xam ne ak ndondu la ñu fi bàyyi ndax ñoom jóge nañ fi ñoom kilifa ya taxawaloon loola waaye seen ak njabootam fi njaboot gi nag ñoo mën a sàmmaat loola kon ñu doon loo xam ne lu ñu war a fonk la war koo dundal tënk bu am solo daal ci borom saam ci xamlem ginnaaw bi mu gënee fii ci dëkk bi nga xam ne mooy Mbàkke Bool ci atum 1848 ci ñaari waajuram yooyu boo ko defee kon dañuy jox Sëñ Abdul Xaadir moom it mu ñëw ci borom saam bi nga xam ne kat moom la ñuy waxtaane nii am njàngam alxuraan wala njàngum xam-xam ñaar yëpp mën na koo boole fan la ko defee ak nu mu ko doon defee boo ko defee bismillah Sëñ Abdul Xaadir ci kàddu gi ok jërëjëf sëriñ Abdul Karim ci Euh, dugg bu am solo bi ci ni ñu xam ne borom saam ak fi mu bokkoon day mel ne ni ñu xam ne borom saam ak fi mu bokkoon rek lay laltaay la ci ñu mën a xam kii fu mu tegoon xam-xam ak tolluwaayam ci xam-xam. Mhm. ndax xam nañ ne euh, réew mi ñi fi nekkoon ci ay doomi soxna. ñi ci gën a baax. Mhm. ñi ci gën a fés ci xam-xam. ci waa kër Maam Maram nii na ñu tudd koo xam ne nitu xam-xam la. nit ku am solo la ci réew mi te euh, laalul ci maam maaram mhm. kon day mel ne ay bokkam ci ñaari wàll yëpp day dem ba ci Seex euh, Muhammadul Kabir di maam maaram di askan woo xam ne wu sell la woo xam ne seen lépp xam-xam la woon ak jikko yor ne Sëñ Abdul Karim waxee ba tax na ñi ko seqoon ñëpp ci fànni way juróom jigéen ak ci fànni way juróom góor ñëpp kuñ ci tudd rek nitu xam-xam la koo xam ne ràññi ko woon na lool mhm. ni mu doon yëngoo ci xam-xam. kon nag koo xam ne ci bii abu mel noonu nga sosoo mënuñoo séntu ci yow lu dul njàng. Mm-hmm. am njàng. Mm-hmm. ak fonk ko ak xam-xam. Mm-hmm. ba tax suñu borom na ko ci cër boo xam ne fees na loolu am njàngam nag. njàngum alxuraan mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko defee ci way juróom bu góor li ci ëpp. ci way juróom bu góor di sëñ Mor Anta Sali. fa la dalee njàngum alxuraanam euh, ba mokkal alxuraan mokkalin wu rafet dañ koy waxee xifzan wa rasman wa tajwidan Mhm. mokkal ko ci mokkal bu wér man mhm. koo tari man koo bind itam nañ ko war a bindee ñu tuddee ar-rasmul usmaani ndax alxuraan daa am boppam mhm. mokkal ko itam ci ci ci mën a te moom ci njàng muy dañuy tuddee tajwid ba mu ca jógee euh, way juróom ji sëñ Mor Anta Sali jébbal ko euh, nijaayam muy sëriñ Bousso bi sëriñ Mouhamad Bousso nijaayam ji nga xam ne moo soxna jaar ñoo bokk lépp moom la ko joxoon li ëpp ci njàng xam-xamam fa la féete sëñ Mouhamad buso moom nga xam ne moom la takkooloon takkoog moom nekk ca daara ja bari fi sëñ Mouhamad Bousso jógee jël lépp léppi daara ja jox ko ko jël ñam yoroon ñëpp dénk ko ko kon loolu day firndeel ne euh, wóolu woon na ko loolu sëñ Mouhamad Bousso moom nag tolluwaayam ci xam-xam fu sori la woon doy na ci firnde rek la ñu sëñ Mouhamad Bachir wax ci Minanul Baaqil Qadiim bi mu koy melal bi mu ko tuddee wax ne wa kaana shaykhan jalilan euh, wa aaliman mutqinan nabilan aaliman mutqinan maanaam borom xam-xam la woon boo xam ne ku xereñ woon xam-xam la moom sëñ Mouhamadou Bousso mi nga xam ne moo jàngal borom saam taahiral qalbi ku seetloon ab xol la ku laaboon ab xol ak ay jikko tayyibal axlaaq koo xam ne ku ñu gërëm loo ay jikkoom la kon ku mel nii la borom saam lool mu def ci moom xam-xam waaye nag tekkiwul ne. doonu doon wër ci yeneen boroom xam-xam yi di sàkku ci xam-xam ndax xeer gum xeroon ci xam-xam mm-hmm. te loolu mi ngi tàmbalee bi mu nekkee ak sëñ Bousso fii ci Mbàkke mm-hmm. takkoog moom di jàng ba ni yàlla dogalee ñu jógee fii dem Saalum ca jihaad ji nga xam ne moom la Maba Jaxu woote woon te li ëpp ci magi réew mi demoon bañ demee foofa itam euh, mi ngi doon demaat ci jàng ci yeneen boroom xam-xam loolu la koy tegtale mooy li sëñ Mahamadou Lam Diop wax sëñ Mahamadou Lam Diop daga na wax ci ci Irwaawu Nadim mm-hmm. mi ngi wax ne euh, sëñ Touba bi sëriñam faatoo te fekk mu tolloon la taji dan na achat dan naa si mhm. nee na boobu la sëñ tubaa ñëw ci wayjuram féeteeg moom farlu ci boppam nga xam ne moo doon farlu boppam di jàng di di di di di dem ci lenn ci mu musaxixun yi ñi nga xam ne ñooy wéral ñu koy ñu mën a jàngale ñu di ko wéralal ci farlu boppam la wéyee ba mokkal alxuraan ci niñ ko war a mokkalee népp nee na diggante boobu yëpp teqali ko wut ak way juróom mu ngi takkook way juróom du tàqali ko moom lu diggante bu néew nee na tax li waraloon teqali ko moom boobu borom saam mi ngi nekkoon ak moom ci Saalum waaye euh, xar ya yi ñu nekkoon bokkutoon dëkk bi ñu nekkoon borom saam mi ngi ak suñu soobee ñu ngi ci beneen dëkk euh, sëñ Mor Anta Sali ak sëriñ bu mag nekkoon ci beneen dëkk. Mhm. Euh, sëñ bi jàng taxaw gi mu taxawoon waaye juróom di jàng léeg-léeg mu dem ci borom saam ci dëkk ba mu ne sax fa ñaari weer wala wenn weer nga xam ne ñoom ñaar ñoo koy nekk. foofu nag bi suñu Mouhamadou Lamine Diop daga na di wax borom mi ngi woon ci beneen xar ya ngi woon ci ñeneen ñuy jàngale. Mm-hmm. di fa di fa jàng di fa sàkku xam-xam nga gis ne kon foofa mi ngi fa doon wër di jàng mm-hmm. moo tax siiw ne Saalum am na ay sëriñ yu wute yu ko fa jàngal yoo xam ne xëy na euh, takk seen i tur wala xam ne ñoom ñëpp du yomb waaye li moom te sëñ la mu Diouf Daga wax ko mooy mi ngi doon jàng ci euh, yeneen borom xam-xam yu nekkoon Saalum ba nekkee Saalum itam noonu dafa nekkoon euh, fonk njàng ma loolu ba niñ jógee waat Saalum jógee waat Saalum ñëw fii ci Mbàkke Bawol ci 1304 ku ñuy wax Samba Tukulóor Ka jël na ci moom xam-xam tam ci li li gën a siiw suñ Samba Tukulóor Ka mi nga xam ne euh, bàyyi la ci moom ndax doomi nday suñ Mor Anta Sali la jàngal na ko te moom suñu Samba Tukulóor Ka jàngal na itam euh, sëñ Touba borom xam-xam la woon ku ku ku amoon xam-xam loolu moom it suñ suñ Bachiru def na ci moom ay seede ku ku ku amoon ku xamoon asraari tariqati euh, kii la xaadiriya waaw ku ko xamoon lool borom xam-xam la woon moom it borom sam jël na ci moom lenn ci xam-xam. waxee na ni itam jàng na ci sëñ Balla Diatara fii ci Mbàkke am na lu mu jël ci moom ci xam-xam loolu di wane rek euh, wuute gu muuti ci nu mu doon jëlee xam-xam naka noonu maamam ji di soxna Asawar Mbàkke nga xam ne mooy way juru soxna jaara waxees na itam li a siiw mooy jël na ci moom xam-xam itam ndax soxna Asawalo jigéen la woon waaye dundoon na lu gudd loo xam ne lépp da koo jeexaloon ci njàngale soxna jaara ci moom la jàngee li ëpp ci euh, am ci alxuraan ak ak njàngum xam-xamam ci moom la ko jàngee ndax niñ koy nettali dañuy wax ne eh, ay góor ak jigéen ñëpp daan jàng si moom ndax da daan sol ay ay ay jàllaabi yoo xam ne day kaalawu ba daj sol jàllaabi yu tal ba ku ko gis doo xam ndax kii góor la jigéen bu defee ngoon gi nit ñu wuute di ñëw di tërulu ci moom xam di jàng ay góor ak jigéen nga xam ne mën ngaa jàng ba dem te doo xam ki doon jàng ndax góor la am jigéen ndax ndax ni muy ni muy ni muy suturaale yaram comme ni ko eh, lislaam jàngale suñ mor jaar nag ci diggante boobu la jàng ci moom kon euh, li ñuy li ñuy li ñuy jàngatee ci loolu rek mooy borom ak saam kon ku amoon yitte xam-xam la ku ci farlu woon la ku ko joxoon yitteem yépp la comme ni ko ay mbokkam ay baayam ki mbokkam defee ah, loolu nag juraloon na ko suñu borom def ko mu géeju ci lool géeju yéeme te liy firndeel ak géejoom mooy mboolem ñi ko seedeel boo koo ci gis rek day insisté day taxaw lool ci ni ko yàlla dénkee woon xam-xam ñi ko seedeel ñëpp ñaari ba itam mooy. ñi génn ci moom ci ay borom yi xam-xam ni ñu toll te loolu dinañ ci ñëw xëy na bu ci bu ci bu ci kanamee incha allah bu ko waxtu wi maye waaye daal xam-xam bi demoon na ba àgg foofu ni ko si Moussa Ka waxee réew mi dootuñ fi nangu ko am xam-xam lu dul ne dangaa dem ci borom sàmm ba mu wéralal la ci alxuraan ak ci xam-xam ba mu wéralal ne ba saxal ne euh, am nga am nga am nga am nga am nga ak raw ci lef mi ñu doog la koo nangul ni ko si Moussa Ka waxee. Hmm. boobee ko fi kàng fóori euh, assey xuma mor jaar moo leen tuural boobee ko fi kàng fóori moo lay moo lay seetal mhm. te loolu mooy bi sëñ Mbàkke so ñëwee ci moom mhm. kon loolu firnde la ci ñaareel mooy euh, lañ ko wax ne wasaamixun min mabaanil ilmi xawadahu sarfu zamani fa am sa fil haba fil hawa is haba mhm. nee daal am njàngam yóbboon na ko ba mu doon ba mel ni am montagne ci xam-xam ku kawe ci xam-xam koo xam ne foo toll rek yaa ngi koy séen Eh, ay jamono kenn ñemewutoon a eh, ndamu ci xam-xam ne ko suñu Ahmadu Soxna waxee kenn ñemewutoon ak ak suñu noonu li waaw mhm. kenn ñemewutoon ndamu ci xam-xam ndax fam ca fam ca tolloon li tax mu ne chami xon min bàyyi na almi dafa mel ni ab aw doj la woon ab montagne bu kawe woon ci xam-xam boo xam ne foo toll di ko seen waaye jamono ñëw rek daal koy jël kon loolu lu yéeme borom saam daal ci xam-xam fi ci doomi soxna yépp baaxoo jaar fara ci jaar ci am njàngam ba toll ci foo xam ni bu ñëwee di wax tolluwaayam ci xam-xam ak ak ñi mu génne danañ ko danañ ko leeral àggoon na ci tolluwaay xam-xam sax bi ko sëñ bu soobee jàngalee ba wóolu ko bi mu koy bi mu ko yow daal mënatoo topp ci ginnaaw kenn fi mu toll nii fi nga toll wala topp ci topp ci ginnaaw kenn mooy bi ba fekkoon na lu jiitu ma koy yeewi daana ko wuutu ci daara ji borom saam daana ko wuutu ci daara ji di ko di ko di tëral nit ñi xam-xam ci bari ba dem ba wóolu ko ne ko nag demal nga nga nga nga nga sanc ba muy sanc sëñ bu soobee jël ñim àndaloon ñépp toofal ko borom sàmm sëñ Abdul Karim mi def na ci téere bu am solo boo xam ne indi na ci indi na ko ci mhm. mooy siratul anam fii fii tuxfatul am fii sirati mam borom sàmm noonu mhm. noonu la tudd bi mu koy yeewi dafa jël mbooloo mi àndoon ñëpp jox ko ko ne ko ñii nag ba def ci ñoom xam-xam ak ku yar ak jikko ju rafet te xam ne yow man xiyam la leen laaj gis nga kon kooku borom xam bu toll noonu wóoloo la jox la ñu àndal ñëpp bàyyee la am loolu firnde la ci ne kon kon yow fa fa fa ñu soxla ci tolluwaayu xam-xam àgg nga fa kon bu hmm. ñëwaatee bu fekkee bu ñuy wax ci ci ci incha allah yitte ji mu joxoon xam-xam ak ñu jàngee ci moom gën cee yaatal allah. Hmm. jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir Gànnaar ci dugg bi ñu duggal ci njàngum borom saam ñu gis na kat kon borom saam ku joxoon yitte xam-xam la lool. ba tax bërëb yu fasantikoo ci réew mi dem na fa jàngi xam-xam waaye nit ñu wuutee dem na fa jàngi xam-xam ci ñoo am am xam-xam yoo xam ne xam-xam yu wuute la ba mën nañoo wax ne kon xeeti xam-xam yi nga xam ne xamoon nañ ko ci jamonoom yooyu yëpp peegoon na leen ba kon nga war ñoo ñëwalaat sax noonu nan la joxewaatoon xam-xam boobu ak ña génnee ci ñoom ñenn nit lañ ak luñ présenté bu ko defee te jëmmi xam-xam bi ñu bëgg a waxtaanee ci boppam ñu ko jox suñ baydaam bi ñuy tàmbali dañ ko war woon mu defaale nuyoom waaye bu nuyoo ba noppi it daal di agsiwaare ci biir tam bi ñu xam kat xam-xam ci boppam sax mooy lan ba noppi. ak ban njëriñ la ñu xam-xam amal ak fu mu ñu mën a yóbbu bu ko defee solos xam-xam kon ñu jox suñ Baye mu jëlal ñu ci kàddu bismillah jërëjëf sëriñ Cheikhouna salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mépp di nuyu suñu maam ji sëñ Abdul Karim sama ñaari nijaay yi ñu nekk ci thème bu am solo lool day mel ni man fi ma ciy duggee mooy ñoom ci lan lañ tegtaloo woon ba aw ci yoon woowu ndax mag ñi dañoo amoon minhaaj yoon wu ñuy jaar mbir mu ne dañ koy teg ci alxuraan teg ko ci sunna teg ko ci xel mu rafet loolu moo moo ñuy ñëw ci ñu wax lan mooy xam-xam xam-xam nag buñ koy aborder mënees na ko abordé ci côté yu bari ndax définition yi nga xam ne moom lañu jox xam-xam muy taarifaat yi day bëri. waaye yëpp faw nga indi ko pour mu am complémentarité mu am takaamul. ndax benn ñàkku ci njariñ bu ñëwee ci Serigne Touba. am na déggin ci xam-xam. wëlbatiku génn ci al ilmu naafi. ñeneen tamit am nañ déggin ci xam-xam génn ci al ilmu naafi. kon loolu lépp bëgg nañ cee ñëw. kon première définition bi ci xam-xam muy taarif bi mooy xam-xam dañ naan. mooy nan ngay fexe ba nit ki muy xalaat xalaat bu am njariñ muy def réflexion positive xalaatam di jur lu am njariñ nan ngay fexe ba loolu am kon boobaa ngay mën a xam ne xam-xam yaa ngi koy améliorer di ko di ko tatwiir di ko avancé di ko yokk ci nit ki xalaatam kon nit ki buy jëfandikoo xalaatam rek xam-xamam di gën a amélioré wu boobaa ni muy xoole mbir yi du bokk ak bu xamutoon ni muy xoole mbir yi du bokk ak ñi nga xam ne xamuñ boobaa moom day wuuteeg nit ñi ci liñ naan perception bi mu am ci mbir yi loolu tamit moo koy yóbbu ci moom mi nga xam ne am na xeetu xalaatin boobu am na xeetu xoolin boobu loolu da koy jox wàccuwaay da koy jox daraja ci biir nit ñi nit ñi di ko wormaal loolu moo indi liñ naan tarfiul ulama boroom xam-xam faaw des koy yëkkati ndax bokkut ak nit ñi nu ñu xalaate bokkut ak ñoom nu ñuy defe ndax moom lépp da ko teg ci leer goo xam day jóge ci suñu borom nga xam ne boobaa ñim dëkkal ñépp faaw dañuy bàyyi xel xalaatam dañuy bàyyi xel xalaatam ndax boobaa moom dañ koy jàppe li ñu naan aalimun mufakkirun wa mas'ulun day nekk boroom xam-xam boo xam ne ni day xalaat xalaat boo xam da koy teg ci yoon ba pare la muy xalaat da koy mën a assumer maanaam responsable responsable bu ko baatu français bu ñu koy wax mooy koo xam ne ni bu defee dara buñ ko laajee lu tax dana ko mën a wuyu mm-hmm. kooku mooy masul mm-hmm. kon xam-xam mooy tax nga mën a dugal ci société bi lu bees. Mhm. mën a génn ci société bi aada yoo xam ne nii aada yuy suufeel nit la. Mhm. kon première définition mi ngi noonu ci xam-xam. Mhm. am na ñu ne xam-xam mooy mbir mu ne nga xam ko ci réalité ba ci dëgg-dëgg ba. te loolu mënoo koo am ci lu dul nga sonn faaw nga daj coono bu metti pour àgg ci réalité boobu lu mel ne sëñ Abdou Karim yi yii muy def jékkut-jékkut rek def ko daj na ci coono bu rëy doog di ko génne nga xam ne lii moom da ciy mën a teg baaraamam muy lu mu xam moo tax loolu moo ñuy indi ci ñu ne boobaakat xam-xam mën nañ ko wutal maanaa yu bëri loo tax nga dégg ñu naan al ilmu bil aqaid ilmu lugaat xam-xam boo xam ne nii la mu jëm mooy pas-pas li koy jàngale. Mhm. lii tax nga xam dëgg-dëgg lan mooy pas-pas. Mhm. ba wuute ceeg nit ñi nga xam ne yow fa nga koy teg lu wóor lay nekk. Mhm. moo lay mën a indi ci liñ naan ilmul lugaat linguistique. langue yi nga xam fi ñu bàyyi ko langue bu ne luñ ci wax nga xam fa mu jóge xam ndey ja xam cosaan la. loolu xam-xam dong moo la ko mën a may. xam-xam nag boobaa dafa yaatu dañ koy wutal ay pàcc boobaa. loolu moo ñu indi ci ilmu tabia mooy liñ naan science naturelle science naturelle moo lay jàngal rab yi seen composition. Mhm. li ñu leen bindee ak seeni njariñ seeni lor nit ki yooyu yëpp moo la koy jàngal. Mhm. garab yi moo lay jàngal seeni njariñ. Mhm. liñ ko mën a jariñoo. ak nan lañ ko war a toppatoo. nga xam ne dem na ba scientifique yi garab yi sax ak seen wuute dañ koy wutal ay tur yoo xam ne ni buñ ko waxee. képp ku nekk ci àdduna bi di scientifique da mën a xam ne garab gii lañ ci bëgg a wax. Mhm. buñ buy danañ ko wutal non scientifique boo xam ñëpp a koy xam. Mhm. buñ nee lu mel ne bisaab danañ ko wutal benn non scientifique lu mel ne ibikis sabadarif. Mhm. fu ñu ko waxee rek scientifique bi da nga xam ne mooy bisaab. lu mel ne banaanier dañ naan Misa paradisica. kon loolu xam-xam dong moo mën a tënk loolu. nga xam ne foo ko waxee mu leer nañ ci ñëpp ñu ko xam. kon loolu moo ñu indi ci liñ ne euh, ulumu tabiha mu tabiha yooyu te mën nañ cee dugal riyaadiyaat mathématique mathématique moo lay may lépp looy dugg nga calculer ko ba mu exact mhm. ba mu wóor nga xam ne lii boo ko defee du mooy moo xam maté moo xam tali ngay defar moo xam ab tabax ngay defar moo xam ab pont ngay defar loolu xam-xam mii moo la koy may mhm. buñ koy lim du jeex lu mel ne informatique day dugg ci biir nga xam ne boo duggee ci informatique danga mën a programmer lu ne loolu xam-xam moo la koy may xam-xam boobu nag dafa yaatu yaatu na yaatu goo xam ne nii am importance importance boo xam ne ahamiya boo xam ne alxuraan da cee xiirtal nit ñi mhm. alxuraan moom lépp lu ngeen mën a jàng diggante asamaan ak suuf rek mën ngeen koo xam léegi nag boobaa bu ñu ko jàngee ba pare nag danañ ñëw ci nan lañu encadré jullit bi ba mën a jariñoo xam-xam bi ak wan yoon la koy teg loo tax alxuraan naan wali yaalama alladina utul kitaaba utul ilma annahul xaq min rabbik loolu importance gënu koo kawe ñi nga xam ne am nañ xam-xam ñu xam ne lii dëgg la gu jóge sa borom kon dëgg gi mënoo koo xam te moo xam-xam mu ñëwaat ne yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajaatin gis ngeen ni leen méngale ñi gëm ci yéen ak ñi am xam-xam suñ boroom da leen yëkkati ay daraja kon nga xam ne xam-xam ki koy wut walla ki ko am dafa am daraja bu mag ci lislaam mhm. te di ko faral di suufeel day delloo ginnaaw ab société moo tax yonent bi sallallahu ngir attirer suñu attention ci loolu moo taxoon mu ne man xaraja fi sabilillahi fi sabilil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarja yoonu yàlla di jihaad li mu rëy rëy li mu bëri tiyaaba képp kuy jóg di sàkku xam-xam wala nga koy xam la yaa ngi ci sàkku gi feek ngay dellu si yaa ngi ci jihaad yaa ngi ci yoonu yàlla kon loolu daraja gënu koo rëy mm-hmm. bu ñuy wax importance mbir bu ñu fa yemoon mën naa doy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëmut foofu wax na beneen hadiis boo xam dane innal malaaikata la tadaw ajnihataha li taalibil ilmi ridan bi ma yasnaw ki nga xam ne day sàkku xam-xam wala mu koy amal malaayka yi dañuy tàllal seeni laaf seeni laafi laa fi njéggal mu cay jaar lu tax ndax dañoo gërëm li muy def ni nga xam ne koo fonk gërëm ko da nga koy laal tapis rouge. Mhm. noonu lañu defal ñi nga xam ne dañ yëngatu ci xam-xam. te daanaka lii ñuy def tamit yëngatu ci xam-xam la ndax da koy dundal. di ko wane di wane ñi ci nekkoon. waaye nag ki nga xam ne day sàkku xam-xam moom ngir lii lépp mu mën koo am faaw am ay éléments yoo xam ne nii ay valeurs yoo xam ne day nekk ci moom du boo sàkkoo xam-xam bu ne rek yii ñuy wax mu nekk ci yow. faaw da ngay am melokaan yoo mel ay valeur ay jikko ay doxalin yoo xam ne nii la ca ëpp solo mooy liñ naan valeur yi ngëm nga gëm ba pare looy gëm mooy nga gëm ne xam-xam ak jaamu yàlla la ba pare loolu nga koy jàppe nga gëm ne xam-xam farata la waaye nag perception bi ñu am ci xam-xam suñ jamono ji dafa soppeeku bu ñu lay ñaanal ay diplôme yàlla nga am ay diplôme bay nangam xaalis nga xam ne xam-xam moom ku koy jàng moom xaalis lañuy teg sa kanam te fekk xam-xam xaalis tax koo jóg xaalis dara la ci li muy jur waaye taxu koo jóg. Mm-hmm. nit ki moom balaa daraa xew dafa war a xam day farata nit ku ne pour nga wuuteeg rab mën a jëriñ société da ngay xam mm-hmm. laneen li moom dogalub yàlla. Mm-hmm. perception bi ci la mag ñu baax ñu moom la ñu amoon nga xam ne moom xam-xam leen daa jaral ñuy laxas. def ci ay at ba am ko luy ñëw doog di ñëw. Mhm. waaye ñun dañuy jàng pour xaalis boo dee jàng diine sax juróom dañ la ci defal benn at ñaari at ñun nañ ko yóbbu ci école tubaab te école tubaab ba taxul nga am xaalis. am ñoo xam ne mësuñ faa jaar te buñ amee la ñu am ci daara yi ñooñu ñëpp ñoo leen employé di leen liggéeyloo di leen fay. kon loolu luñ war a delloosiwaat la mag ñi nañ doon doxee ci xam-xam ba am liñ am te jëruñ ñun fii ñu jaar. Mhm. Ah, boo xoolee suñ boroom dafa def benn lien entre xam-xam ak ragal yàlla mhm. wattaqullaaha wa yuallimukumullaahu wallaahu bi kulli shay'in alim mhm. na ngeen ragal yàlla yàlla xamal leen ndax yàlla moo xam lépp mhm. Sëriñ jubaa daa ko firee naan wattaqullaaha na ngeen ragal yàlla ba mu yàgg ba yàgg wa yuallimukumullaahu suñ boroom xamal leen muy al ilmu laduni ilmu laduni nag yii ñu doon wax yëpp mi ngi ci biir mhm. yëpp suñ borom moo moo moo moo yor ndey ya yëpp ni ko xamee ci lawhul mahfuz la jóge muy mhm. ulumut tabia di mhm. science physique di bi nga xam ne mooy wàllu nucléaire wàllu économie wàllu politique lépp xam ca xam bu bu sell ba ca bàyyi ko képp ku suñ borom xamal nag yëpp mën nga moo tax nga gis mag ñi daa bind ci xeeti xam-xam yu sew yi bind yoo xam ba nii jamono da koy confirmer mhm. lu mel sëñ Mbàkke Buso mhm. bu yàggul rek gis nañ waa NASA bi nga xam ne ñooy euh, structure bi gën a fort ci wàllu espace mhm. ak wàllu euh, espace kii planète yeeg yu demee noonu déplacé nañ ba ñëw Guédé ngir yéemu guñ yéemu ci xam-xam di xool ba xam mbir mi nam da demee nga xam ñoom ay tasaawulaat yu bëri lañ amoon ay questionnement lii nan la mën a amee te lim defoon lépp ba tey tey la gën a tey la ko histoire jamono di ko gën a jox dëkk kon ñooñu dañoo jiitaloon ak ragal yàlla ci liñ doon def. moo tax suñu borom barkeel seen xam-xam. ba tey bokk na ci njariñ li nga xam ne danañu ci xiirtal. li yonent bi wax ne sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit waaye nag kiy sàkku xam-xam day am yool bu rëy ci àdduna am yool bu rëy ci àllaaxira te bokk na ci li nga xam ne jullit bi bu faatoo dana ko dab dana ko dab mhm. muy xam-xam boo xam da ko fay bàyyi ñu koy jëriñoo mhm. kon da gisal valeur nit ku ne saa bu faatoo léppam day dagg mhm. waaye yi nga xam ne du dagg xam da caa bokk xam-xam da caa bokk kon xam-xam boo ko sàkkoo ba pare jariñ ci nit ñi mu des wi boobaa barke ba kenn mënta xam fu mu lii rek li koy gën a wane mooy li suñ borom di wax ne xul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuuna ñi xam duñ yem mukk ak ñi xamul moo tax mag ñii ñu fi waxtaane mësuñoo yem ak ñi ñi ñi ñi jamonoonteel kon xay na dañ koy xaw a tënk foofu ba ñëwaat bu ñëwaatee ñu ñëw ci al ilmu naafi mooy lan ak ñëw ci nag léegi jeexit yi nga xam ne xam-xam am na ko sur le plan économique sanitaire ak ci yu bari yoo xam ne ni jur na ko ci àdduna bi incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Baye Dame ci dugg bu am solo am solo bi nga xam ne dugg nga ko ci kat xam ne rek lan mooy xam-xam ci biir xam xamle boo xam ne rek làmboo la ne mboolem njëriñ ji buñ déggee ni nga ko waxee dëgg-dëgg te teewlu ko danañ xam di xam-xam di jëriñ te daanaka mépp mbir it bu xasee leer ci yow ab safaanam leer ci yow mooy kat ñàkk kee xam kon lu muy wàññi donte ak goo ci waaye mën naa ne tàmbali naa leer ci man wax dëgg yàlla ni ñu ciy duggee am na solo lool kon muy loo xam ne kon mënta ñàkk ci doomu aadama ni nga ko waxee ba ne mooy wutale mala ak nit kon nit ku ne faaw dafa war a xam te buy xam xam ngir war a xam rek comme ni ko sëñ bi doon waxee ba ca njëkk mooy dundalal xam-xam nga xam ne kon intérêt amu ci muy intérêt koomam koom lu teew waaye nag dangay xam ngir war a xam kon bu ko defee dañu jox eh, sëñ Abdul Karim moom it mu dellusiwaat ci anam gu am solo gi nga xam ne mi ngi ñu koy indil muy kat jëmmi borom saam jëmmi mbokk gi ñu mbokkal askan wu baax woowu ak askan wu baax it bi mu doon ci nit ba tax am lu mu war a jomb am fu mu war a tënku bu ko defee kon ñu joxaat sëñ Abdul Karim mu leeralaat bisimilah sëñ bi. waaw kay jërëjëf euh, ñu ngi sant bu baax sëñ Abdou Khadir ci moom itam bi mu duggee wax ju am solo ak sëñ Baye Dame yi nga xam ne moom it dugg na ci xam-xam leeral ci lu am solo kon yàlla na yàlla defal ak dégg rek. ci daraje sëñ tubaa waaw moom de niñ ko waxee rek ci borom saam moom ni ma leen ko waxee woon ci mbokk gi rek euh, nekkoon koo xam ne rek fi mu bokk moom. ñépp xam nañ ne fu sel rek la waaw te loolu rek moo war di continuer ba nëgëni rek léegi nag euh, ñi nga xam ne ñooy njabootam gi dañoo nekkoon njaboot gu baax ñoom it ñoo xam ne fa fu boroom saam tegoon tànkam rek fa lañ tegoon seen tànk ñoom it di di ko dundalal lam bëggoon hmm. ci diine jeeg mbokk geeg lépp li tax ma bëgg leen koo indil nii nag pour indil leen seeni tuur rek maanaam ñu gën leen a ñaanal dolli leen ay ñaan bu baax a baax yàlla dolli seen leer fu tëdd ay ay doomam lañ yoo xam ne ñu ngi nii mhm. gis ngeen ko nii sëriñ Ibra Kani Mbàkke moom moo nekkoon taaw boroom saam soxna Faati Kani mooy waajuram moom moo sëñ Bousso Ilimaan ak ñoom so soxna Faati mooy waajuram moo nekkoon taaw borom saam léegi dafay teel a bàyyi ko nag mi ngi fii ci ñu denc mbuso bi fii ci wetu sëñ Ahmadou Yadali ak sëñ Mor soxna Mbàkke moo njëkk a nekk xalifa borom saam sëñ Mor Boussa Mbacke ak sëriñ Baara Xureeji Mbacke ak sëriñ Cheikh Astawalo Mbacke ak sëriñ Omar Mbacke ak sëriñ Mouhamadul Mahmoud Mbacke ak sëriñ Cheikh Atta Mbacke ak sëriñ Maam Balla Mbacke Misra ak sëriñ Ismaïla Mbacke ak sëriñ Mbacke Astu Mbacke ak sëriñ Mokhtar Mbacke ak sëriñ Cheikh Penda Mbacke ak sëriñ Mokhtar Mbacke Awoge ak sëriñ Mahmoud Mbacke ak sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke ak sëriñ Abdul Latif Mbàkke ak sëriñ Maam Balla Mbàkke moom soxna Marema Lo sëñ Maam Balla mi day ñaari gis ngeen ma indil leen fi benn sëñ Maam Balla misra waaye mii moo euh, sëñ Moustapha Guèye Yeruwaay ñoo bokk waajur xam naa ñu bari xamaguñ ko dañ koy a bàyyi mm-hmm. ak sëriñ Babacar Mbàkke mii waaw ñi nga xam ne ñoo nekkoon am na fi ñoo xam ne dañ fee teel a bàyyi ko moom waaye am na ñoo xam ne moom dund nañ fi liggéey fi liggéeyu yu rëy sax yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ah. yàlla na yàlla yokk seeni leer fan tëdd ah. naka noonu itam ah, doomam yu jigéen yi ñu ngi nii ñoom it ñu ñaan suñu boroom yokk seeni leer fañ tëdd soxna Faati Kani Mbàkke mi ma leen doon wax nii waaw moom moo moo moo moo moo ci doomi borom saami mook mook Sëñ Ibra Kani moom ñoo bokk ñoo ñoo ñoo bokk ak soxna Aminta Kani soxna Faati Kani mooy waajuru sëñ Bousso Ilimane sëñ Moutalib Bousso ñooñu maanaam moom mii sëñ Afe Bousso moo ko yoroon gis nga njabootu borom saam gi da leen di dugal foo xam ne rek lépp bëgg dundal dundalu mbokk rek la waaw ñëpp boo xoolee fi ñu nekk rek fi ñu fi ñu nekkoon di fa jaamu borom maanaam di fa yàlla ci liggéey bi maanaam lépp dundalu mbokk rek la soxna Aminata Kani mii mooy waajuru sëñ Modou Mamoun Niang sëñ Modou Mamoun Niang mi nekkoon ak sëñ Abdoulaat sës ak moom sëñ lool moom itam gis nga ak soxna maam soxna Mbàkke ak soxna maam xari Mbàkke ak soxna roqee Mbàkke moom soxna moom mu bokk ak sëñ baara xuree ji ak soxna astu Mbàkke moom soxna sëñ Cheikh ak soxna Zeynabu Mbàkke moom sëñ Cheikh Asta Waalo moom soxna Asta Waalo ñii soxna Asta bu su mooy seen ak soxna Aminta Jobbe Mbàkke moom itam moom ak soxna astu Mbàkke maram ba ak soxna maam asta Mbàkke maram ba ak soxna Marème Mbàkke maram ba ak soxna maam xari Mbàkke maram ba ak soxna Daba Mbacke Maram Ba ak soxna Kanni Mbacke Xari moom soxna Xari ak soxna Maguette Mbacke moom soxna pend Bouye ak soxna Maam Asta Mbacke moom soxna soxna Penda Bouye ak soxna Zeynabu Mbacke moom soxna Penda Bouye ak soxna Faati Mbacke moom soxna Astu Ngom ñii ñooy njabootu borom saam gu jigéen gi ñii am na benn téere bu ma defoon sax boo xam ne ñoom ñii ñu jigéen ñi ku ci nekk say doom indi naa ko waaw moom itam lépp ngir bëgg rek xamante gi ak mbokk gi gën a dund rek moo tax ma di ko def mm-hmm, mm-hmm. kon nag euh, lii lépp rek ngir bëgg mbokk gi bañ a réer rek jamono ji nag bu njëkk mbokk yi mbokk ak dox ak bokk dafa amoon bu baax mag ñi dañ daa jóge fu sori di takk ay fas di dem ci yoon yi metti lool ñuy dem bu ñu demee ci seen mbokk fanaan fa yenn fa dox mbokk gi ba seen xol sedd te booba booba yëf yi jafe na waaye léegi fi ne nii yoon yi neex na oto yi bari na lool waaye tànk yi dafa néew ñu bari daanaka sawaratuñ ci dox ak bokk téléphone rek la ñu yor di waxante léegi nag na mag ñi doon def rek lañ war di def ba tey nemmiku sa bokk fa mu nekk nga di ko fa fekk di ko dundal te yàlla tax te boo koy dox itam nga di ko dox te yàlla rek tax jamono ju naqaree dox ak bokk nag la ndax da ngay nekk mbokkum ñëpp bëgg a dundal mbokk gi jóge ci sa kër war a dem fu sori dem ba àgg boo demee la nga doon séentu doo ko gis ndax xëy na néew nga alal bariwoo woo alal wala xëy rek yoroo oto wala yoroo dara boo demee rek la nga da nga fay jëlee loo xam ne du la neex te loolu nag mag ñi bëggiwul koon noonu kon nag boo gisee tax may indi lii lépp rek damaa bëgg ñu gën a dundal mbokk gi bu baax ndax dundal mbokk gi day tax rek maanaam mag ñi fan tëdd seen xol di gën a sedd ci ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi loolu loo loolu gis nga maa ngi leen di wax fii ñi nga xam ne taxawoon nañu borom saam lool nekkoon ay taalibeem lool nekkoon fii ci dëkk bi am na ci ñoo xam ne dañ ko doon laxasaayu sax di ko tarbiyewu léegi ma indil leen ko ñoom it ñu ñaan suñu boroom yokk seeni leer gis ngeen ko nii ñii ñu mag lañ ñoo xam ne ñu yàgg lañ ñu yàggoon ak borom saam lañ ñu xamoon leen sëriñ Daawur Ñas sëriñ Baaba Neene Jóob sëriñ Biraan Jóob sëriñ Mafaal Jóob sëriñ Moor Wadd sëriñ Malick Fall Dingaani sëriñ Malick Fall Xabdu bàyyi sëriñ Seex Fall Xabdu mi yore baat bi ak sëriñ Babacar Lo ak sëriñ Omar Lo ak sëriñ Ibra Seck Fall ak sëriñ Sadaga Seck ak sëriñ Mor Khoudia jóob ak sëriñ Sañebe jóob sëriñ Birane Ndiaye sëriñ Madoune Sali Ndiaye sëriñ Daanu Ndiaye sëriñ Dethie Mbow sëriñ Massamba Thiam sëriñ Ismaïla saaw sëriñ Birane Fall Niang ñii nag am na ci ñoo xam ne dañ ko doon laxasaayu moom waaw mooy ñi ma noté fi kii bi muy sëriñ Baba Nene Diop ak sëriñ Birane Diop ak sëriñ Mafal Diop ak sëriñ Mor Wadd ak sëriñ Malick Fall Dingaali ak sëriñ Malick Fall Xabru ak sëriñ Omar Mbacke mi nekkoon Taïf ak sëriñ Ibra Seck ak sëriñ Sadaga sekk ñi moom dañoo nekkoon ci moom di laxasaay ci moom. léegi nag njaboot gi moom bari woon nañ waaye damaa leen a bëgg wax rek ne leen ñii itam euh, njabootu borom saam war nañuy nemmiku fañ nekk ñoom it. Mhm. kenn ku nekk ci ñii ñu xam fa nga dëkk ak sa njaboot dem dundal dundal kóllëre gi amoon diggante borom saam ak ñii ndax itam wax dëgg nit jëmmu laxasaayu bàyyi léppam topp sa maam ba jóge fi ba ba gisatu léegi maanaam bu sañoon njabootam googu moom it njaboot gi dañuy am ak relation bu baax a baax di xamante di gisante di déggante waaye loolu moom mooy mooy dundal yëf yi rek waaw doomam yi góor yi doomam yi doomam yi nga xam ne jigéen ñi ak ñu góor ñi ku ci nekk njaboot njaboot gi ci boppam ñu jéem leen xam xamante duggante jàppante waaye fi ne bu kenn ku ne toogee sa kër rek moom jëf day mujj rek maanaam fàtte rek mooy am kon nag góor góorgóorlu bu baax ci dundal xam-xam ni ko sëñ Baye Dame waxe léegi ndax ñii de ku leen ku leen roy rek doo réer mukk te jamono ji àgg na foo xam ni dafa lëndëm lëndëm goo xam ni fii mu nekk xamut foo jëm rek da nga sonn lool da nga te fii mu nekk nag euh, kilifa yu baax yi ku mel ni Mamour Diarra bu Xaadim Rasul ñii ku leen di roy rek doo réer mukk nañ roy nañ roy ci seen melo ya nañ roy ci seen lañ gëmoon fa fan doon awlu ñu aw fa buñ ko defee duñ jaaxle mukk ci àddina kon nag àddina ngoog lépp ci ay nattil la kilifa yi ma leen limal lépp ñu nekkoon taalibe borom saam yu ko gëmoon nekkoon ak moom ñoom ñi kenn nekkatu fi ñoom kon nag ñun ñii fi nekkit noonu rek la ñuy mujj di kon nag nañ fexe ba nettil yi daal di rafet rek yàlla nañu yàlla defal ak dégg aku topp maa ngi sant bu baax tey jégglu nag ndax euh, waxtaan dafay dafa jafe waaye nag yéene rek lañ koy lañ lañ la ñuy defee. Uh-huh. ak ak junj rek. waaw ak junj rek bu ko defee buñ junjee rek li ci des nag eh, yé nit nit ki mooy jël mooy mooy jël pas-pasam ni ko sëñ daam waxee léegi ak eh, eh, jóg sol saw dàll jéem lii ñu la faramfànce fàcce lii ñu la junjal nga jóg sol saw dàll jéem koo gëstu ji topp ko doomi borom saam yi ñu la wax nga jéem a xam fañ nekkoon jéem a xam seeni doom taalibe yi nga jéem a xam fañ nekkoon xam seeni doom xam ñëpp. loolu mooy xam-xam buñ la junjee da ngay faram-fàcce da ngay da ngay da ngay jéem a da jéem topp nag loolu ñu la ñu la junj waaye du caagin dañ lay indi lépp rek du caagin dañ lay indi lépp rek dañ lay am lu ñu la tegal rek yow nga sol saw daal nag jéem daal ni waaw lii moom nu may fexe ba xam lépp ba xam ci lu bari waaw lool loolu rek la loolu rek la kon nag maa ngi jéglu bu baax a baax a baax ci tënk bi xam naa ne moom lu ma ci wax ci te motut ci man la maa ngi koy jéglu lu ma ci wax ni ma ko waxee diis wala mu am benn melokaan maa ngi koy jéggulu yàlla na ñu yàlla defal ak dégg ak topp ñu ngi bëgg bëgg lool nag ci jataay bi di ñaan suñu borom barkeel ko commission culturelle bi nga xam ne ñoo taxaw liggéey bi it suñ mataar ak ñi mu àndal ñëpp yàlla na leen yàlla defal tawfiix suñ seexu naa yàlla na yàlla nangu liggéey bi barke sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu sëñ Njoogu Mbàkke bu baax a baax di ci jataay bi moom it bëggu mbokk rek tax moom it ñëw fii fekkee jataay bi jërëjën jëf asalaamaaleykum jërëjëf sëriñ Abdul Karim ci li nga indiwaat sànq ci njabootu borom saam gi muy góor ñi muy jigéen ñi teyit muy lu am solo sax teyit nekk benn pàcc ci li nga xam ne moom la siñ Baye Dame di waxtaane muy xeeti xam-xam yi am kon li ñuy wax ilmul ansaab leeral nga ñu ci lu baree bari ñun ñi nga xam ne njaboot ak borom saam lañ waaye jéggi nañu sax ndax tàmbalee nga ko ca maam ba wàcc ci borom saam te maaram nag daanaka mooy Sénégal ndax na ko suñu xel waxee ne mooy suñu àddunaan kuñ fiy tudd rek sët nga ci moom. kon dana gën a tax ñu xam liñ bokk te buñ ko xamee rek danañ xam niñ koy jëfandikoo. andi nga ci lu am solo ba ci doomi jaboot ak Mamour jaare gu jigéen gi ak téere bi nga wax ne def nga ko ci bu ko defee loolu dana gën a tënkaat mboolem li nga xam ne xamante bu gën a yomb su loolu lépp amee nag yow say yi nga ci def. la ca des nag mu war mboolem képp koo xam ne bokk na ci kër gi muy jóg dox mbokk googi ngir ne ko suñ borom dénkaane ci alxuraan xadis yi ñëwaat ci foog diglewaat ci digle yu am solo am solo kon ñu ngi lay sant yow tamit bu baax di la jaajëfal sa teewaay am na solo lool ci bërëb bi jëmmal nga ko ci xam-xam waaye jëmmal nga ko ci teewaay bu ko defee ñu jox euh, sëriñ Abdul Xaadir Gànnaar mu àggale it ci fi mu njëkk a daanoo loon muy kat mu leeral ñu école Mamor Diarra ci boppam bu ñu waxee école Mamor Diarra comme nañ xamee école ci borom xam-xam yu njëkk ay ñoom imam Malik danga nga dégg saafi xeetu yooyu kon sëñ Abdou Khadir ñëw leeralaat ñu ñooñu ñu xam boroom saam ci boppam ñan la jàngal ak ñooñu ñooy ñan kon bisimilah sëñ Abdou Khadir ci kàddu gi. ok jërëjëf euh, sëriñ Cheikhouna jërëjëf euh, sëñ Abdou Karim sunu jur gi ci lu am solo lii mu fi wax lool ci mbokk geek niñ ko war a dundalee rawatina ñii mu junj ci ñu woon ak borom saam. dañuy ñaan sunu borom rek mu defal ñu ndimbal ak tawféex bañ man koo dox na ko mag ña daan doxe daan ko dundalee noonu ndax loolu rek moo di wuyu euh, suñ bàyyi daam itam ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom it ñim ñëwee ci ci ci ci xam-xam am na solo lool lool lool ko defee euh, li ñu waxoon léegi borom sam kon ginnaaw bu ñu xamee am njàngam ak fi mu jaar ak euh, ni mu ko joxe woon dite danañ ci ballu loo xam ne kon borom xam-xam bu mag la woon lool lool ni ko way seede yëpp seede ci moom ab xam-xamam nag dañ koy wan ni mu baree xam-xam ak ni mu fi ni mu ci ni mu ci ràññi ko woon day mel ab université la woon mhm. boo xam ne li mu produire li mu génne ci ay kàngam yuy boroom xam-xam yoo xam ne ñooña dañoo dañoo liggéey yàlla société bi liggéey boo xam ne daanaka boo koy boo koy boo koy lim doo doo ko doo ko mën a lim ndax ndax bari di borom xam ne foo leen tuddee ci réew mi ñëpp xam leen loolu benn firnde la ci ci ni ñuy xamee tolluwaayu xam-xamam beneen firnde bi mooy ñi seede ci moom te loolu itam incha allah danañ ci indi tuuti rek ci borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñu xamoon seen ñu xam-xam la ñu seede ci borom saam ndax xam-xamu nit moom ci ñetti anam jàpp naa ne lañ ko mën a xamee mooy mu bind. Mhm. jàngale jàngale jàngale mën naa nekk ci bind mën naa nekk ci ci ci di ko jàllale ci kàddu. Mhm. borom saam nag yàlla dogal na gisuñ mu mu bind xëy na. ndax ni mu tab jawoon ci daara ji wala boog ña nga génne ña hmm. génne ci yow ci ay borom yi xam-xam mën nañ cee tegtaloo xam sab xam-xam hmm. ñaareel bi mooy borom xam-xam la ñu wax ci la ñu seede ci yow hmm. loolu ay anam la ñu mën a xamee nit ki borom xam borom saam kon anam gi mën a xamee ba ci njëkk mooy ñi génne ci moom kuñ ci tuddoon rek mu doy sëkk koo mën a yor jamono ci xam-xam ka ci jiitu mooy rakkam ju tedd ji nga xam ne lépp moom la muy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu Cheikh Ahmadou Bamba jàngee na ci borom sàmm as def ci xam-xam te li gën a siiw mooy xam-xamu la daan jàng ci moom liñ gën a jàpp itam mooy jamono ba ñu nekkee Saalum ni ma ko waxee woon sànq ci ginnaaw ci li sëñ Mouhamadou Lamine Diop danga na wax ne ba sëñ bi nekkee Saalum daana dem ci borom sàmm léeg-léeg am fa ñaari weer wala weer takkoo ko moom bu noppee jógewaat fa dem ci ñeneen yeneen mu saxixun ñu di ko ñu di ko taxaw ci xam-xam diggante boobu la way nettali yi gën a saxal ne ca la ca la doon jëlee ci moom xam-xam borom saam nag xam-xam bu mu amoon ak ak leeru mën a jàngaleem ak barke bu ci yàlla defoon tax na digganteem ak sëñ Tuubaa ci bi mu koy jàngal xar baax daf ci daan feeñ mooy daf ko daan jàngal ab bind tey bu ko sëñ bi nafaree ba suba buy ñëw da koy bindaat way da koy da koy da koy da koy way waaw xam ne arud la koy jàngal bu ñëwee way ko bu ko borom saam gisee day yéemu lool ci diggante démb ak tey rek mu jàng fi bind bu tooy mën koo mën ko mën koo def ci ay abyaat indi ko bu ko defee sëriñ bi it da koy da koy xamal ne rek moom daanaka jarul yéemu ndax sa sa sag leeru làmmiñ la rek ak sag mën a jàngale moo jur li lépp kon bu ñemoon ci sëñ boobu rek ne jàngal na ko doy sax ñu xam kon kii fa mu tolloon ci xam-xam ka ca topp mhm. bokk na ci ñi génnee ci moom ci ci ci ay kàngam mooy sëriñ Mbàkke so mhm. sëriñ Mbàkke Buso nga xam ne moom la ñuy euh, tuddee lu ci bari mufti tariqa moom mi nga xam ne mooy mufti yoon wi li ko waral mooy euh, sëñ Tuubaa ci ay jamonoom ci njaarim li ëpp ci laaj yi fi daan ñëw jëm ci wàllu diine wala yi jógee ci gouvernement bi wala bindante yi mu daan def yëpp ci uh, loxol Sëñ Mbàkke Buso la ko la ko tegoon xam ne moo daan tontu laaj yi ci wàllu diine moo daan tontu leetar yi daan jógee ci uh, kàngami réew mi muy kilifa yi yu mel noonu moom la tegoon ci loxoom sax wàllu xuduud yi ñu teg koo xam ne dafa wàcc charia ngax Sëñ Tuubaa léppam charia la woon ku wàcc charia xadd yi lislaam wax maanaam gëtan yi lislaam wax ne moom lañ war a teg ci Sëñ Mbàkke Buso la ko la ko bàyyee woon looloo tax ginnaaw bi sax jeexit ji des na fi ba gede ba jamono jii rek wala bu yàggut rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi doon toppatoo lu mel noonu muy muy ñi nga xam ne dañuy jàdd xadd ñu leen war a teg ñoom ñu ngi ko doon sàmmonte kon loolu ñu ngi ko jëlee ci ci sëñ Mbàkke Buso mi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tegoon ci moom loolu lépp euh, nga xam ne boroom xam-xam bu mag a mag a mag mag la woon lool koo xam ne taalif na ci euh, fànn yu wute ba ci wàllu wàllu wàllu fëlëk nga xam ne xam-xam bu raar la woon ci réew mi ak euh, yeneen xeeti xam-xami tabiya yi ni ko Baye Dame doon waxee léegi yu ci bare bari sëñ Mbàkke Buso daf cee géej woon yor naa benn téeréem boo xam ne rasaaylu sëñ Mbàkke Buso lañ ko tuddee euh, ak sax Sëñ Mbàkke moo ko def waaye da ci da ci da ci da koo xaaj ci ay parti yu bëree bëri mooy lim wax lim bind ci tasawuf ak lim bind ci fiq lim bind ci euh, ci tawxid lim bind ci falak lim bind ci yu ci baree bari xam ne boo ko boo ko jàngatee rek da ngay xam ne kii lim lim taalif fànn yi yim taalif ni mu wutee ak lim taalif ni mu baree da nga ci xamee lool ne ku mu génnee ci moom rek euh, kooko kàngam la te sëñ Mbàkke Bousso moomu sëñ Mor Jaara jàngal na ko wéral na ko naka noonu euh, magam ji di sëñ Cheikh Bousso ak sëñ Omar Bousso ñoom ñaar ñëpp doomi sëñ Bousso bi dañ jàng nañ ci borom sàmm itam euh, moom sëñ Mbàkke Bousso ak sëñ Cheikh Bousso sax sëñ mu Ka indi na ci ab ab junju buy wane ne bi muy wax naan ca yooyu at alxaaji Cheikh Bousso ca yooyu at alxaaji Cheikh Bousso laxase Saalum ñëw bawal di Bousso hmm. ànd ak sëriñ Mbàkke ñu jaari Mbàkke di sàkk di sàkku alquran ju ànd ak barke euh, sëriñ Momar jaaratu moo leen tooral boobee ko ku fi Kanfoori moo lay seetal bañ jógee bañ jógee Saalum kon ñëw bawal ci sëñ Mor Jaara lañu wàcc dem sàkku ji fa xam-xam ak alquran ndax jamono jooju sëñ Mor jaar mooy ki nga xam ne réew mi kuñ daan wóolu ci xam rek moom moo lay seetal ba wéralal la ba noppi noonu mu ko waxee ci bayit yi kon ñoom ñëpp jàngi nañ ci moom naka noonu ay rakkam ci boppam am nañ su ñu jàngee ci moom ku mel ne sëñ Cheikh coro ak suñu afiya imam maam Cheikh Anta ni ko suñu Musaa Ka waxee jàngal ko dax daru yu ak risaala moom maam Cheikh Anta la ci la ci jublu mhm. jàngal na ko lenn ci xam-xam suñu afiya bu so moom moo ko wéralal alquraanam jàngal ko bari ci xam-xam ba nettali nañ sax suñu afiya bu so suñu afiya imam muy suñu afiya Mbàkke rakkam mhm. mi bokk ak suñu maam Cheikh Anta lépp mhm. am na fan yu bari bari su ma jum lu toll ak fan yoo xam ne sax na ko bis bu seen mu tari ci Maam Mor Jaara alquraan ba mu jeex mooy loolu mooy bi mu koy bi mu koy wéralal rek ngir bëgg moom moom mu ijaasaal ko ndax comme ijaasaal rek ñu xam ne yow moom kàngam nga ci ci ci xam-xam kon doom baayam yooyu jàngal na leen naka noonu ci njabootu sëriñ bi itam bëri na ci ñoo xam ne ci moom lañ jànge mm-hmm. buñ ci jëlee ku mel ne euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha mm-hmm. mi nga xam ne mooy mooy njëkk toogee jataayu sëriñ bi moom itam ci borom saam la jànge ndax buñ jëlee demee ci gëstu bi nga xam ne académie tu Cheikh Mouhamadul Moustapha bi nga xam ne waa Daaru Xuddoos ci boppam ñoo ko def ñu ngi ciy firndeel loolu ba mooy suñu Mourou Moustapha ni mu yaatoo woon xam-xam ak yaatuwaayu xam-xam ni muy bëri ci ak ni mu ni mu ni mu xamee woon ni mu amee woon xam-xam ci fànn yu wute te loolu lépp ñoom bañ koy bañ koy bañ koy bañ koy firndeel fu mu ko jëlee dañ ne ci diggante ñaari baayam yi la ko jëlee mooy Cheikh Ibrahima Fati maam Thierno ak borom Sam nee nañ mbool ngëneelu euh, yaatu xam suñu Mourou Moustapha ci fànn yu wuutee wuute tudd nañ ci lu bari balaa adab ak xoloo mu daahiri mooy mooy xoloo mu tabia yi su ma loolu lay doon mooy euh, al ulumu naqliya wal aqliya ak euh, fiq usul ak xam-xamu ilmul kalaam tafsir siira tasawuf ak ulumul xaqiqa ak azawq wal irfan nga xam ne loolu ci xam-xamu tasawuf a jëm yooyu ñoom lim nañ ko ci téere bi ne sëñ Moussa sëñ ci géeju woon na mhm. waaye bañ ko waxee ba noppi dañ ne ngëneelul géeju gi mu géeju ci xam-xam yooyu yëpp ci ñaari bàyyam yi rek lay dellu muy muy borom saam ak ak ak ak ak maam Thierno Ibrahim te ci maam maam Cerno Birahim la tàmbalee mottalee ci borom saam borom saam ko mottalil ba mu doon géej bu taxaw wala euh, euh, montagne bu taxaw ci xam-xam kon Cheikh Mor Moustapha ak ak lim réalisé ci réew mi nga xam ne ni Baye daam wax léegi faaw bala ngaa a réaliser dara da koy teg ci xam-xam bu wóor waaw euh, sëñ Mor Moustapha ba bi fi sëñ bi jógee nga xam ne circonstances yi ni mu yéemee woon ni mu taawoo yoon wi ak lim réalisé waat lépp nga xam ne ni ko sëñ bi bëggee woon lim santaane woon naa lim fi bàyyi woon mu taxawal ci anam ga anam gëm gën a rafetee euh, loolu ku ne xam ne ne ku def lu mel noonu tegoo ko ci làmbat ci xam-xam bu wóor nga ko te ku mel noonu mooy sëñ Modou Moustapha moom ci borom saam la génnee ci xam-xam ginnaaw Cheikh Ibrahima Fati ka ca topp mooy sëñ Mouhamadou euh, Fadil rakkam moom itam ci borom saam jàngee li ëpp ci xam-xamam moom sëñ Modou sëñ Fallou daf ko daan daf ko daan waxal boppam waaw ah, daf ko daan wax daan ne euh, borom saam moom a jàngal xam-xam bi gën ci xam-xam yi muy tafsiru Quran ak xam-xamu tawxid ba ci naxoog yu mel noonu alfeetum naal yooyu yëpp ci ci borom saam la ko la ko jàngee moom Sëñ Fàllu waaw ba waxam ju siiw jooju mu daan wax daan kudul ka ma joxe woon muy Sëñ Tuubaa doo kam ma joxoon xam naa ci ci ci mbóoti alxuraan loo xamut mooy moom kon moom dëkk gi mu defoon dafa dëkk borom xam-xam yëpp xam le ne moom kudul borom saam doo borom Tuubaa ndax borom Tuubaa moom moo ko joxe woon moom leneen la mi nga xam ne moo jàngalam xam mu ne kudul ñaar ñi xam naa ci ci ci sew sewi alxuraan ak i mbóotam ci tafsir ak yu ni mel ulumul Qur'an xam naa ci loo loo xamut kon loolu rek wane na moom tolluwaayu xam-xam waaye wane waan na tolluwaayu xam-xam moom borom saam suñ sëñ Fallou gis nañ lim réalisé moom itam lépp ci yoon wi ak itam lim bind lépp ci ci ay ay moom adib la woon boo xam ne bu yéeme la def na ñoom ñëpp sax def nañ marché yu am solo eh, ci borom saam ginnaaw bi mu fi bi fi jógee eh, kon ñi ak ñu dul ñoom mën nañ leen tënk ci ñoo xam ne jàngee nañ ci borom saam ñoom bañ fi bañ jàngee ci borom saam ba noppi sëñ Bàkk mel ne sëñ Bàkk bu so gis nañ moom it daa nekkaat ab université boo xam ne lim génn ci ay kàngam ki borom yi xam-xam kenn xamul ñu mu toll ci ci ci ci ci yoon wi. kon loolu benn firnde la ci nuñ mën a xamee xam-xamu borom saam fa mu tolloon ak yitteewu mu koy toon boole kooku ndénkaane yu am solo yu mu daan def ndénkaane yu am solo yoo xam ne yoo xam ne euh, ñëpp xam nañ ne xakim boo xam ne daana génne ay xikma yu solo bokk na ca yooye mën nañ cee lim benn wala ñaar euh, indi yenn seere ci moom te tëj te mooy euh, sëñ Mbàkke Buso ak sëñ Daam Abdourahman Lo mas nañ koo gane si seet si ko biñ ko seetsee ba ba mu ganalee leen ba ñuy dellu ñu ne ko ñu sàkku ci moom mu dénk leen ba mu leen dénk dane leen bindal euh, dane dane dane suñu mbàkki bu soo ne bind ñetti laa ne bind laa ñetti yoon mu bind laa mu teg loxoom ci laagu njëkk gi daan ko euh, laa najaata minal xalq mooy euh, kenn mënta mucc ci mbindeef yi ñu ne ko ah yéeme na loolu kon lu ci lu ci saafara boobu sax mooy mooy bu mujj bi laa laa najaata min xalqi yi moom moom la mujjee wax bi mu njëkk a wax mooy laa raaxata fi ji moo ci jiitu laa gu njëkk gi laa raaxata mooy àdduna amut am noflaay lu neex amu fi ñu ne ah kon loolu moom lu ci pexe mu ne xanaa nga sonn ci lu mat a sonn booy sonn nga moo sonn ci ci lu mat a sonn ginnaaw coono mënut a ñàkk xoolal lu jar a sonn nga sonn ci li si di faral di wax ku baax sonn. bon sonn kon kon kon kon kon baaxal rek baax moo gën a noppale. Mhm. waaw ginnaaw boo ci def da boo ci def da nga sonn. bi ci jàlle mu jël la euh, loxoom teg ko ci laa gi ci topp daal ne laa firaara minal mawti dee kon mënu koo daw ay na ma takunu yudrikkumul mawtu wala kuntum fii burujin mushayyada ni ko alxuraan waxee. waaw fu ngeen nekk rek dee fekk leen fa donte da ngeen nekk ci ay tabax yu ñu yu ñu xereñe pale yoo xam ne dañoo xereñe ak tabaxam waaw wala sax booy de dee boo koy daw sax moom day far dajeeg yow qul inna mawtal ladi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum nga mhm. li ngay daw moom mu mu jugee fa nga daw jëm ngeen jàkkaarloo loolu mënee su ko daw moo tax mooy laa firaara mina mawt kenn mënta daw de ñu ne ko kon loolu lu ciy pexe mu ne da ngay dund ci la nga xam ne bu dee ñëwoon da nga bëgg nga caa faatu da dund ci la nga xam ne bëgg nga caa faatu boo defee rek daal di daal di daal di noppalu daal di teg loxoom ci laagu mujj gi daal di laa najaata minal xalqi kenn mënta mucc ci mbindeef yi waaw seen i wax ak seen i lool kenn mënu ci mucc ñu ne ko kon lu ñuy def mu ne da ngay xool ña baax ca ñoom nga ànd ak ñoom ña ca des nga wan ngeen nga won leen ginnaaw te lu ñu wax baax na loolu ci xikma yi mu daan joxe la euh, kon kon ñu ñu tëjee ko ci euh, seede tuuti rek ci bay di ñu ko defal nga xam ne day tegtale tooluwaayu xam-xamam ak euh, fa mu nekkoon bokk na ci yooyu li si Zunnuni li wax ne taqulu xadratuhu lil qawmi batan yaa qawmi fastamiu minni al uluma wa'u hmm. nee na borom saam daal day mel ne tooluwaayam ak ak jaam ci xam-xam nga xam ne loolu mën nañu ko xaw a méngale ak li ñu tuddee lisaanul xaal day mel ne tolluwaayam ci xam-xam bu ñu ko doon jànga rek day mel ne danaan yéen nit ñëpp ñëw leen ngeen jàng si ñëw leen ngeen jàng si lisaanu xal ni ma koy faral di misaale mooy li nga xam ne da koy da ngay gis nit ki jàng ko moom te waxu ko mhm. moo tax arab yi wax naan lisaanul xaal ablahu min min lisaanil maqaal mhm. moo moo gën a jot sax waaw mhm. bi nga xam ne dafa dafa dafa toog suba ba ngoon lekkut xiif bu metti jàpp ko kooku boo ko xoolee rek lisaanu xaalam moom mooy wan ne daa bëgg a lekk lisaanu xaalam mooy daa daa daa soxla lu mu lekk mhm. xam nga lisaanu xaal neen day mel ne nag lisaanu xaalam wala tolluwaayam moom waxu ko waaye mooy danaan ñëw leen jàng ngir xam-xamam feesoon bay duusu danaan ñëw leen jëm jël si xam mhm. euh, bokk la ca li mu wax Ahmadou Soxna Mbacke bi mu koy euh, ba mu koy euh, ba mu koy bi mu fi jógee nee na tey de ku mu neex man ngaa génn wane xam-xam ndax ka nga xam ne moo moom la ñëpp doon bàyyi xel jógee na fi li yabrusil mubtaqoon al ilma wal udaba faqat taxayyaba najlu jaara waxta jaba comme neex mën ngaa génn tey feeñ ndax kañu doon bàyyi xel ka nga xam ne moo kawe woon ñëpp ci xam-xam nëbbu na wax ca biir ne wal yafxaril yawma qawmun bil yaraa'i wala xawfun alayhim fa man yaxshawnahu dahaba neen tey ku yoru xalima di bind kat mën ngaa bind mën ngaa génne sa xalima bàkku waaw mën ngaa mën ngaa bàkku mën ngaa napp mën ngaa def lu la neex ci wàllu bind ndax kañ daan ragal ci bind jóge na fi nekkatu fi waaw ndax ndax ndax nit moom boo nekkee moom te fekk euh, li ngay def moo la ko gën a man wala li ngay kii faaw nga koy bàyyi xel ci li ngay def borom saam noonu la demoon ak moom daane wala yarqa man shaa awaadal manabiri iz maata alladi yattaqihi kullu man xataba nee na comme neex tey mën ngaa yéeg ci kaw min bari di xutba ndax ka fi nekkoon ba tax kenn ñemewutoon a yëkkati kàddoom di wax ci xam ak di jaay xam-xam kooku moom nekkatu fi daane law ansha lam yatrukil asmaa dikruhumu fii talaati shamsi man daa yubsiru shahaba daane bu fi nekkoon di dund ñii di ñuy tudd ci xam-xam ñëpp kenn du dégg seen tur kenn du leen tudd waaw ah. mhm. ndax daan ne euh, fii tanaa si sax yu yu sa yubsiru shahaba bu jant xasee ne fàng moom biddiw kenn dootu ko gis bu jant feeñee biddiw kenn dootu ko gis bi ci mujj muy muy muy bu am solo muy ci euh, bi nga xam ne sëñ Ahmadou Bousso moo ko def muy bu am solo moom it ci ci ci boo xam ne ni mu ko tijjee rek day wane tolluwaayu borom sax moom lay tëjee incha allah dafa wax ne fa yaa sumana in ja ana mutaasifan yuxaatibuna wa damu fawqa taraibi fa qultu lahu ma baalu damika yanhami fa qaala faqad faqad naal ana xibral makatib nee na man de yéem naa gaafu ki nga xam ne xëy na ñëw di ñu tàggee si tàggikat bi nga xam ne daa ñëw ànd ak njàqare bi mu ñëwee li muy wax ak ñun yépp bët yaa ngi tuur ay ronkoñ ma yéemu ba ne ko waayow ana la luy say mbir ba ba ba ba mënoo téyee sa jooy yaa ngi jooy mu ne ko daal fóore yi fóore yi fóore yi fóore daay daara yi moo dem xibrul mhm. makatib xibrul mhm. makatib ci ci ci waxin arab da ngay xam ne kuñ kuñ ko melal rek kooku borom xam-xam bu mag la xibrul mhm, makatib xib mooy fóore boo xam ne mboolem luy makatib bi rek daje woon na ci mu ci xam-xam daan nag la koy firndeel mu wax ko ci biir xasida gi daan ni wa kam mushkilin an zil xijaa mutaxalliqin tataaraxahu tataaraxahul muftuunu ulub tajaaru bi bëri waa na masala moo xam ne day të day lënt lool ci borom xel yi boroom xam-xam yu mag yi ñi nga xam ne ñooy ñooy muftuune mooy mooy euh, mufti yi. Mhm. ñi ubbee ci xam-xam jokkalante nañ ko seen biir ñi nga xam ne euh, yàgg nañoo yàgg nañoo def ay ay sacrifice yàgg nañoo sonn ci xam-xam ku ci ne jàllalante ko jàllalante nañ ko ci seen biir jéem ci ba sonn mënuñoo xam maanaam fa awdaxa maanaahul xafi bi ibaratin tuqarribu aqsa fahmihi lil muxaatabi nee na waaye bu ñëwee ci borom saam daal da koy leeral leeralin woo xam ne maanaam li muy nëbbu nëbbu da koy leeralee leerin woo xam ne te gën a gàtt xel sax bu ko déggee day day day day xam lañ lañ bëgg a wax. Hmm. kon loolu lay firndeel rek loolu si Ahmad Bousso moo ko wax. ak yeneen ak yeneen daanaka daal dana néewal dana néew hmm. loolu nga gis ci marché yi nga xam ne def nañ ko ci moom ak seede yi ñu def ci ñoom ci moom danga ci dana néew loolu nga gis ci ku bind ba mu jeexal te te te insisté wul waxul lu leer euh, bàyyi xel bu baax a baax fa mu tolloon ci xam-xam ak yitte ji mu joxoon xam-xam. Hmm. kon ñu ngi jégalu euh, bu fekkee guddal nañ di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp asalaamaaleykum jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir Gànnaar macha allah ci yaatal gi nga xam ne andil nga ñu ko léegi ci école wala université sax bu Mamor Diarra boobu nga xam ne lu baree bari ci boroomi xam-xam yu mag a mag ci réew mi ñu xam ci moom lañ génne lool rek kon doy na xam-xamam ñaareel ba it yi nga xam ne muy maraasi yu baree baree bari boo dem waa jamonoom defoon nañ ko ci moom muy xam-xam yu bari yu waat yu yaatu yu fasanti ko nga xam ne kon borom saam nekkoon na université. ba taxoon ñu dëppale woon kon thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey jii ngir jëmmi xam-xam ak ak soloom ak yitte ji ko borom Samba Xon nga xam ne koo fi jël rek buñ xoolee marché bañ def ci moom da ngay gis ba ñu wax ci moom rek wax nañ ne borom Sam jàngal ku ko jàngal mën nañ cee jël misaal rek Cheikh Mouhamad Fadal bi mu naan booleeg di jàng xam-xam fa kër borom Sam sàkkuut ab am-am kookaa ko jàngal ba mu raw fa Mbàkke alaaji fay na bor ba seetil Mbàkke def na fa jàkka ngir taral ustaasam maamtaana doomi soxna jaar maam kon jox Baye moom it mu jël kàddu gu mujj gi gën ñoo leeralal solos xam-xam wala résultat bi nga xam ne xam-xam dana ko def ci société bi waaye tàmbalee ko ci doomu aadama yi nga xam ne ci ñoom la suñu borom bi awale xam-xam gannaaw boo xamee loo xam ne suñu borom jox na ko importance bu mag bokk na ci importance yi wane ne suñu borom jox na ko xam-xam bi muy wàcc alxuraan baat bi njëkk a wax iqra jàngal jàng nag ci la ñu pour xam ñaareel ba mooy Seydina Adama bi ko suñ borom tànn ci kaw malaaka yi xam-xam la ko tànnee woon wax lama Adama asma kullaha loolu kon xam-xam moo indi sax doomu Adama kon ci kaw suuf kon Baye Sam bisimilah nga tàmbali. waaw ah, jërëjëf Serigne Cheikhouna ñu ngi lay sant bu baax kon ñu wéyal ci liñ doon wax rek ci wàllu xam-xam naa di xam ne nag thème bi moom day thème bu yaatu boo xam ne <laughs> xëy na buñ ci amoon lu gën a yaatu. waaye nag ñu fa yéene koo tënk rek may sof ci li nga mujj a wax iqra ak li suñ boroom euh, tege sayidna aadama ci kaw malaayka yi muy ci xam-xam waaye foofu ñaari sew-sew da cee ne ndax suñ boroom dafa wax malaayka yi ne leen damay def xalifa ci kaw suuf koo xam damay wuutu jëmmal ma fa li may digle muy fexe ñu koy appliquer ku jàdd yoon ñu teg la ay daan fexe ba nit ñi ñu jëme seen bopp ci sunu borom. léegi suñ borom loolu la wax. bi mu ko waxee nag malaayika yi ñoom ne waaw xanaa doo fa def koo xam ne nii day yàq ci kaw suuf fekk li tax ñu wax loolu jubluñ ci contre suñu borom waaye suñ borom dafay wàcce woon ay jinne yoo xam dañ doon yàq ba suñu borom yabal malaayka yi ñu jëlee leen fii ñu jàpp ñooñu lañ fa indiwaat fekk suñu borom indiwu fa ñooñu suñ borom na bëgg leen wax ne kii ma fi indi dafa xam lu ngeen xamut dafa xam lu ngeen xamut wa allama wa allama aadama lasma kullaha foofu duñ ne tur rek la xuloo mu tabihe yi ñu doon wax ay science naturelle ak science physique ak wook enrood ak yooyu yëpp mën naa dugg ci biir ndax malaayka yi xam-xam boobu xamuñ ko woon suñ borom la koy xamal ne lii de micro la tudd li muy jariñ lii la nii lañ koy defare lii de sawara la tudd lii lañ ci mën a defar lii lay jariñ lii lay lox lii mooy paan lii mooy léegi na su ma aradahum alal malaayikati bi mu ko ëndee malaayika yi wax leen waaye lii mooy lan xamuñ lii mooy lan xamuñ lii lu muy jariñ xamuñ xam-xam yooyu yépp mooy yii ñu doon waxtaane mooy yii ñu doon waxtaane léegi boo xoolee sëriñ Tuubaa ci aw dégginam day mel ne moom day wax liñ naan al ilmu naafi léegi nag yeneen yi ñëw yii ñuy wax yëpp moom al alaat la koy tudde moo tax mag ñi seen xam-xam amoon barke ndax dañ ci doon am déggu yaatu fi ni nii suñ jamono ji mën nañ ne lu mel ne langue français ci alaat yi lay bokk muy jumtukaay yi lu mel ne langue anglais nii ci aalaat yi la bokk lu mel ne Serigne Touba nga xam ne moom mu jaddi la day yeesal message lislaam te yonent bi ci ñëpp lañ ko yónni bu dee am nga ay américains yoo xam ne nii dañoo jébbal dugg ci yoon wi mënoo dëkk di wax ak ñoom ci wolof te mënoo dëkk ci wax ñu koy traduire kon langue boobu nga dégg ko di ca communiquer ci aalaat yi la bokk xanaa kay lañuy ñuy insisté mooy aalaat yi du njëkk dafa am luy jiitu ba nga am base bi. ala di doog ñëw kon ci biir loolu da nga gis ne xam-xam bépp société boo xam ne ni danga koy wutal développement mu am perse ci biir àdduna bi faawu keno bi xam-xam lay nekk xam-xam mooy li nga xam ne moo lay may liñ naan des ginnaaw doo doo ko def moo xam individu nga nit nga kenn walla ngay société ak ñàkk li ñu naan pauvreté xam-xam mooy li nga xam ne moo ko mën a éliminer xam-xam mooy fekk lu lëj mu lijjanti ko cas bi ma la jox par exemple entreprise bu ñu la joxee entreprise bu dee koo xam ne ne am nga xam-xam doo ñëw rek jël entreprise bi doxal da nga naan danañ def étude interne def étude externe def analyse interne def analyse externe xam loolu moom dalay wër na lii moom boo ko defee faaw day jag nga ne man kat entreprise bi danaa xam fan la néewee doole ma teg na le fan mooy dooleem ma teg na le lan mooy ay am-amam yu ko yàlla may wala yu ko environnement may ma jël technique kii de mane na ci bor sàng mane na ci bor sàng am na nangam ak nangam yan ñoo koy menacé ci fi mu ne nga dajale yépp analyser ko nag daal di indi benn recommandation benn tawsiye boo xam ne nii. ci lañuy jaar pour loolu mën a sotti loolu moom da lay wóor ne lii du lu ñu tànnatu xam-xam ci côté boobu dalay lay wóor ni lu desoon ginnaaw dana ko mën a lijjanti te yii ay point négatif la ay salbiyaat la yoo xam da lay wóor ne du yu baax xam-xam na moo koy dindi kon xam-xam dafa mel ne ak leer la gu nekk nii ak lëndëm nekk nii li sëñ Cheikh naa doon wax léegi bil addaadi tatamayyazul ashiya loolu la ñuy faral di wax saa boo xasee indi ab safaan rek la neen la day leer naññi day leer naññi kon xam-xam noonu la mel moo tax am na benn docteur bu ñu daan wax Suzanne al yi te nekkoon ci jaamiatu université Ayn Shams nee na li ngay gis ñu koy inventé di ko defar invention yu bees yi lu mel na ngay gis ay liñ naan ay vaisseaux spatiaux mooy gaal yi nga xam ne day dem ci jaww ji wala lu mel ni ay missile yoo xam ne nii mën naa jóge ci continent jëm ci continent wala nga gis avion yoo xam ne nii supersonique la nga xam ne ñoo gën a gaaw kàddu ak yoo xam ne nii sax du am ko ko dawal lu mel ne boo demee France da ngay gis métro yoo xam ne nii amul koo koy dawal dañ koy programmer rek fu mu war a taxaw taxaw ne fii mooy nangam métro yoo xam ne nii mën naa ne ngaabu ba Touba ci ron ndox mi lay daw yooyu yëpp la ko defar. ak leer la gu bàyyi ko suñu borom muy xam-xam kon yooyu nga fiy gis yépp lu mel ne euh, li naan al aqlul électronique mooy xel mi nga xam ne du xelum nit waaye dañ koo programmer muy xelum électronique par exemple ñu defar benn robot boo xam ne nii dañ koy programmer heure bii bu jotee mu bale kër gépp loolu xam-xam ko fa indi kon mu ne yii yépp day nekk tegtal bu leer naññ di laywu leer naññi wane ne xam-xam am na wàccuwaay ndax lii li mu rëy rëy mënoo ko am te xam-xam gungewu ko te lii moom fu mu am faawu jeexit am ci société bi loolu moo ñu indi ci jeexit yi lu mel ne li naan avancement développement ci wàllu économie ak ci wàllu santé par exemple bépp société boo xam ne nii gis nga ko mu jox yitte xam-xam bu mag yitte ju mag muy fexe ay doomam mu leen di jàngal ci mbooleem niveau yi moo xam wàllu économie la wàllu sante la wàllu diine la wàllu xam-xamu sociologie la lu mu ci mën a doon faaw da ngay gis ne société boobu mooy kawe beneen société ci wàllu xam-xam ci wàllu culture ci wàllu sante ci wàllu économie loolu moom jeexit bi ñun ñëpp ko mën a gis. réew yi nga xam ne dañoo jox importance xam-xam da ngay gis ni ci domaine yi ma wax yépp ñoo ci gën a avancé ku ko deful nag des ginnaaw ci jamono yi ci ci domaine yi loolu moom mën nañ cee dut baaraam ci suñ pays africain yi nga xam ne xam-xam moom ñoom al toppe lañ ci dañu xool programme boo xam ne France ba mu koy dawal kenn xamut kañ la ñun ba tey moom lañuy jànge loolu kenn mësu koo gis nit moom mënoo avancer te amoo indépendance ci wàllu éducation ak ngay jànge ci sa làkk baneen jeexit bi nga xam ne mën nañ koo wax mooy liñ naan euh, niveau criminalité mooy liñ naan nisbatul jarima fil mujtama maay tooñaange yi nga xam ne mi ngi am ci biir société bi rey nit ak sàcc ak fëkk alali jàmbar ndax nit ak yooyu yëpp xam-xam mooy tax loola wàcc niveau bi wàcc lool foo gis mu bari fa niveau xam-xam dafa dafa dafa des ndax xam-xam li naan wa waa yu muy conscience nit mooy nit ki muy bàyyi xel li ko wër muy xam li xew ci li ko wër xam-xam da koy yëkkati mu man la may ràññee nga xam li nga war a def ak li nga warta def li nga jomblu ak li nga wët a jomblu boobu la xam-xam di njëkk a def ci yow loolu kum ko def ci yow doo am yittey di sàcc wala ngay tooñ wala ngay rey baneen bi mooy liñ naan al mu'taqadaat al qati'a pas-pas yi nga xam ne pas-pas yu juum la yoo xam tiguwul fenn ak yi nga xam ne ay léebo ko lëppeen la ay mit yooyu moom da koy rey moom xam-xam doo gis kenn ku am xam-xam kuy gëm yenn xeeti gëm-gëm yu suufe yooyu te gëm-gëm yu suufe yooyu moo fi indi li may wax criminalité bi jarima bi tooñaange yi ak jikko yu suufe yi nga xam ne xam-xam ci ngay mën a ràññale diggante lii juumu la lii jub na xam-xam moo la koy mën a may te lool yii ma wax boo ko xasee am doo tooñ kenn boobaa liñ naan les droits humains muy àqay nit boobaa dañ koy préserver dañ koy ñoŋal ndax lu tax moo baa ki am xam-xam day xam lan mooy ay droit am lan mooy ay yelleefam yelleef nag boo ko xasee xam daanaka loi bu xasee ñëw da koy gunge rek gouvernement tamit bu ñëwee da koy gunge rek da koy encadrer loolu nag boo xoolee ci ëpp peuple ñi nga xam ne dañoo am xam-xam moom gouvernement du sonn ci ñoom ci di leen jubbante jubbanteeg yooyu déedéet. loi yi tamit da leen a encadré rek waaye nag loolu am na lu koy gunge loo xam dana ci ñëw ci kanam mooy li ma junjoon sànq mooy éthique jikko ji jikko ji ak perception bi nga am ci xam-xam muy nga jàppe ko ak jaamu yàlla kon ñaare boo gisee koo xam ne am na xam-xam ba ba pare def yenn yi mooy xam-xam ba da ko sa sàkkoowut wala mu koy appliquer niñ ko sàkkoo muy mu tegu ci ak jaamu yàlla tegu ci ngëm yow mi ko yore tamit nga yor jikko ju rafet loolu moom Serigne Touba foofu la gën a insisté yaatal ci baneen bi bi ma mën a waxee ci jeexit di mooy li ñaan ar rafahiya li ñaan prospérité xam-xam moom bu amee naataange dund day am dund bu neex bu luxe day am ndax société bi nga xam ne day day sukkandiku ci xam-xam faw ña fa dëkk ñuy am rafaahiya bi ma wax ñuy am prospérité naataange bi dund ndax bu boobaa xam-xam day avancé te dañuy fexe ba xam-xam ñu def ko pour muy rendre service di liggéeyal nit ña fa ne boobaa nga xam ne yow nit kiy dund sëb dund day gën a yomb dañ lay tegal ay moyens yoo xam ne ni sëg dund day gën a yomb te tamit da ngay ubbiku ci bees beesi jamono wàll yi moo xam ci wàllu économie la ci wàllu électroménager la ay frigo ay yooyu yëpp wàllu ay micro-ondes ci wàllu ay dëkkuwaay yu bees yi yooyu yëpp dañ ciy ubbiku mhm. nga xam ne loolu mooy def liñ ñu naan almustawa almaish yi mhm. niveau de vie bi ngay dund mhm. faaw day yëkkati ko bu dee yow yaa ngi doon dëkk ci néegu ñax xam-xam indi ba nga ñëw ci néegu ñax boo xam ne ni dañ koy innové defal ko ay carreaux defal ko ay tuiles. Mhm. Euh, ya nga xam ne moom ya lay àndal ci euh, micro-ondes yoo xam ne nii dana la mën a gunge sa dund ay frigo yooyu yëpp. Mhm. faaw sa niveau de vie day soppi ko. Mhm. kon loolu xam-xam rek moo ko mën a indi. kon ci lii da nga mën a gis ne kon xam-xam solo sim am kenn mënu koo takk. te solo xam-xam fi muy gën a feeñe mooy ci société yi nga xam ne dañoo am ay problème am ay problème am ay cas yu bari kon xam naa dañ koy gën a tënk mhm. ndax waxtu yi mi ngi ñuy mi ngi ñuy mi ngi ñuy dab mhm. waaye ci biir loolu dangay mën a gis ne xam-xam moo lay may nga mën a dagg barrière yépp bépp crise boo dugg xam-xam moo lay may nga mën cee génn mhm. kon développement économique mooy économie bi di dox société bi di avancé xeet woo ko gis ci xam-xam la baax la la la kii li tax sëñ Tuubaa daa ci sonni di ci di ci soññi taalibe yi mu naan fa saariu lil ilmi muziniina naawiina waccallahi ajmaina foofu la solution ba ne mooy gaaw leen sàkku xam-xam waaye ngeen yéene ci jëmm yàlla nga xam ne doo ko def ngir sa intérêt bopp doo ko def ngir am post doo ko def ngir am xaalis danga koy def ngir jëm yàlla loolu la ci fekk fekk la ci dem na ba naan waman nahaakumu an taallumi fa huwa xalifatul lain mujrimi mhm. ki fi wuutu seytaane ci kaw suuf mooy kii dox seen diggante xamlu mhm. kon mag ñii lii lañ xamoon moo tax ñu def seen dund gépp ca xam-xam mhm. is kullu man fiisa zamaani manaa min attaallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin isil amal in lam yakun bil ilmi shaabahu xalal mooy li ñu doon wax ndax jamono ji képp ku leen tere xamlu mi ngi woote biddaa bu ñaaw ndax mbir moo gis ba ënt xam-xam faaw day yàqu crise boo fi gis xam-xam ñàkk ko waral jikko ju suufe joo fi gis ñàkk ñàkk xam moo ko waral kon ñàkk xam-xam fu mu dugg rek faaw mu yàq Mm-hmm. loolu tax mu insisté bu baax léegi nag taallamul ilma li ci wajhillaahi doonal munaafasati wa tabaahi mm-hmm. xam-xam nag bu ngeen koy jàng jëmm yàlla moom moo xoon na tax mm-hmm. waaye nag bu leen ko jàng ngir puukarante wala ngir ëpp ay diplôme wala ngir nit ñëw ci yéen déedéet waaye nag dem na sax ba wax ñu léegi bu ñuy jàng lan lañ ci war a jublu objectif yi xëy na duñ jaar ci baati araab yi waxoon na bu njëkk bi mooy nga yéene ci génn ci ak réer nit ki moom daa war a génn ci ak réer daa war a xam loolu moom mooy objectif bu njëkk bi. mu wuuteeg mala mu wuuteeg rab. baneen bi mooy nga jàng ngir intérêt public ngir mën a jariñ nit ñi. nafu xalqi zil jalaali ñetteel bi mooy ihya ul ulum iqra iqra kay kuñ ko wax dañoo bëgg nga dundal xam-xam. Mhm. nga dundal xam-xam. ñeenteel ba mooy. li nga jàng nag nga jëfe ko boo ko pratiqué defar ci avion defar ci tali du jariñ kenn mm-hmm. kon sëriñ bi tënkal na ko ji ñun nag ñooy amuk dégg mm-hmm. li mu doon ñaan wa bi anchitil ulama mooy lii ñuy def mm-hmm. boroom xam-xam yi nang leen sawarloo ci sama mbind ñu ciy gëstu di ci génne ay sew sew inshallah kon waaye nag xam-xam mooy li ñu la wax rek faw day ànd ak jëfe li nga xam da koy pratique bu dee ci wàllu jaamu yàlla nga koy pratiquer bu dee ci wàllu àddina nga koy pratiquer loo tax mu ne waalam bi anna al ilma wal amala ka adabin tuksibukal kamala gis nga ka adab da ko cee boole mooy éthique bi ñu doon wax jikko ji jikko ji kon xëy na bëggoon nañ koo tëjee sëriñ bi lim développé ci al ilmu naafi ak ilmu xayru naafi waaye xam naa xëy na du du du fi du fi du fi xaj uh-huh. waaye ñu xam ne mbir mi noonu la tëdd xam-xam moom solo si foo ko takk wees na ko société buy dox rek xam-xam moo lay doxloo waaye nag tubaab yi dem nañ ba xam ne xam-xam rek doyutut moo tax ngay dégg ñuy indi éthique. jikko ju rafet. Mhm. waaw boo nekkee ci société ay déontologie yooyu baat yooyu yëpp ñu koy indi. Mhm. looy def lu ne nga sàmmonte ceeg la yell ak la rafet. ñoom dem mhm. nañ ba xam ne li lislaam waxoon faaw ñëw ci. moo tax sëñ Tuubaa mbiram mépp mu koy tënk ci al ilmu naafi muy xam-xam bu am njariñ. boo xam ne ni da ngay jariñ sa bopp jariñ ñi la wër. ak al li ngay def mu nekk jëf ju baax. yëmul ci jaamu yàlla rek li ngay def mu nekk lu baax waaye nag nga gunge ko al adabul mardi nga ami teggin yoo xam ne da ngay am sa teggin sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa boroom sa digganteeg say moroom loolu la wax triptyque li na asulaasiya yooyu mooy ñett yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa moom la bëgg yoonu murit mu tënku ci muy al ilmu naafi xam-xam bu am njariñ al amalu saalih jëf ju baax comme niñ ko leere ak al adabul mardi yi teggin yu ñu gërëm. Mhm. lii rek mooy njàngale njàngaleem sëñ bi. yii nag war nañ koy xóotal nit ñi di ko xam. Mhm. di andi mag ñi lu mel ne Maam Mor Jaara Borom Saam. Mhm. ñuy indi seen exemple ak seen i ngir nit ñi gën koo mën a roy. xam naa thème mënoon nañ cee gën a xóotal waaye waxtu yi moo ñu dab. ñu ngi sant bu baax sëñ Abdul Karim moom sëñ Maxtaar Awa Gueye moom boroom Saam. ak sëriñ Abdou Xaadir mii moom sëñ Jiilu Gànnaar. ak sëriñ Cheikh naa Beto moom sama jarbaat la waaye sama nijaay la. kon waaleykum salaam wa rahmatullahi taala jërëjëf sëñ Baye Dame macha allah kàddu yi am na solo lool lool waxtu bi waroon na koo gën a mën bañ gën a yaatal lii moom laaj nay jataay jataay xëy na tey kon ak tënk la ci woon rek ngir euh, lépp mëneesu te su ko waxee ci jataay bi waaye incha ñu gën ko waajal ba beneen yoon ñu gën cee yaatal bu baax a baax misaal yi mu joxe ñu def ci tuuti commentaire ba la ñëw tëj ci jëmmi xam-xam ni muy joxe valeur société bi ko topp ci misaal rek bu ñu lu mel ni réewum Japon wala Israël gis nañ ne. ñaari réew ya fa nekk fu waroon a am yi jafe-jafe lañ waaye lu lépp xam-xam génn na leen ci ndax deuxième guerre mondiale bi kii loor woon na ci lool Japon waaye Amérique dafa waxoon ne boo leen utiliser te ay armes nga xam ne ñoom ñoo leen yoral sécurité ba bi sab ji waaye ci biir loolu lañ waxoon ne kat lépp lu nit jëlati ci xaalis def ko ci wàllum arme danañ jël lu ni tollu def ko ci xam-xam te du toll la lañ waroon a yàq def ci xam-xam du ci yàq dara waaye buñ gisee loolu avancement bi nga xam ne jural na ko ba tey it euh, réew yi buñ ci jëlaatee ku mel ni Ibn Khaldun nga xam ne téere bu yaatal la bi muy wax ne buñ jëlee lu mel ni Baxdaat bi mu nekkee jamonoy Abbas yi wala ñu jël Espagne ci Andalousie bi fi civilisation amee dëgg-dëgg bi ñu toppoon xam-xam ni nekkoon ay wàcc-wàcc ci àdduna bi ba nekkoon ay bibliothèque ci Moyen Âge waaye nag bi ñu daanoo ba Iskandar jóg ñu gisaat Iskandar ni mu jëlee yëf yi ci ñoom nga xam ne dem na ba buñ ñu turu Baxdaat sax xel yi du ci dem mais Iskandar fa la mujjoon ñëpp di dem ba ci lay waxee daan ne bu ñu xoolee ñun suñu digganteeg tubaab yi ñun ñu naw tubaab yi lañ ci wàllu xalaatin ci wàllu doxalin ci wàllu solin mooy système assimilation bi ñu andi woon bi ñu bëgg a jeexal colonisation fexe ba ñun seeyal suñ culture seen biir culture loolu it xam-xam moo koy def ci nit ci Ibnu Xaldun mi ngi wax naan al maxluub moolaun bil xaalib nee na ki nga xam ne dañ koo nott saa yu ne day xirtalu ci ki ko not danga koy roy ci lépp daane loolu taxoon na ñu nekkee ci jasira kii saq saqdiyee ci côté Italie Tunisie foofu dañoo gisoon Occident yi ci bopp muy tubaab yi dañ doon tooy arab yi ci solin ci doxin ci lépp bay jël seeni tur sax di ko tuddee turi l'islam ay nafisa turi arab boobu nga xam ne loolu lépp kon gondi ñu leen gundi looloo taxaatit boo ñëwaatee fi ba ci senegal da ngay gis boo demoon dëkk bu mel ni Saint-Louis da gis ñoo xam ne li fa tubaab bu njëkk a wàcc doonte ay julli lañ sax da ngay gisaat ñu yooyu ay Golbert Sipiter xeet yooyu yëpp miine wuñ ko ci lislaam waaye not ku ñu not moo tax yow loolu da lay gondi ba léeg-léeg bu ñu lay waxal sa cosaanu bopp sax ki koy wax nag daan ko arrêté yooyu amul solo waaye bu ñu lay wax tubaab bi nag da gis dañ ciy sawar kon loolu lépp xam-xam a koy def kon loolu nekkoon émission bi nga xam ne moo ñu dajaloon fii ci kër sëñ Mourtala Bousso ñuy sant bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ ko seexaloon muy waa Lamp Fall wax muy kóllëre gu yàgg seen diggante kër Mamor Diarra xew yi fi masa amit ñu dagg seen yitte ñëw ànd ñun ñuy jaajëfal baax kilifa ga nga xam ne moo ko jiite suñ borom yaatalal ko mbir mi ni nga xamee ne mi ngi dugg ci wàllum média mi naka noonu ba dugg ci wàllum transport kon mu mel ni Ila Touba bu Lam Fall seen bis yi suñ borom yaatal mbir mi ba mu doon kii yaatoo yaatoo yaatu boo ko defee ñuy ñaanal xalifa bi nga xam ne mooy suñ kanam suñ Abdoulahi suñ borom may ko ndam yàggal ko fi màggal gi ñu dëgmal it nekk centenaire ci téeméer at m Mor mu am ci ndam lu ba. raw mboole màggal yi nga xam ne mas na ko fay jiitu sëñ Mourtala Bousso mi nga xam ne dalal nañu ci këram ñu ngi koy sant di ko ñaanal ñaan suñu borom dolli taxawaay bi dëgëral ko sëriñ Mourtala Bousso mi nga sëriñ Maxtaar Mbàkke mi nga xam ne moo jiital culturel moom ñu ngi rafetlu taxawaayam bu baax a baax a baax ñu fàttali ne conférence bi it moom it buñ ne gannaaw suba la màggal gi ci samedi ba la war a doon incha allahu rabbi ñu ngi koy waxtaane mbokk gi nga xam ne moo amoon diggante borom saam ak it seexul xadim wala boog sax diggante ak mbokk rek rafet gu mu war a rafet waaye ñu jël ci misaal toppante bi amoon ci diggante seexul xadim ak Mamour Diarra kii di magam kii di taalibeem li nga xamee ne rek mooy relation boo xam ne buñ ci àggee dana leer bu baax a baax a baax nekk njëriñ ñu bëree bëri kon ñeemale foofu kàddu gi di gërëm mboolem ñi àndaloon ak ñi nga xam ne dagg nañ seen yitte ñëw teewe plateau bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm jërë kon sëñ bi defal ñaan بسم الإله إفن الدار يالله سفي بقاء به لي فيك يالله بسم الإله إفن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الله في الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له